salaamaaleykum sunu mbokk auditeurs yi ñu ngi leen di nuyu ci Sud FM seen rajo 98 point 5 ñëw ak yéen ci rétro sport rétro tey bi nag dañ wara waxtaan ci li jëm ci compétition yi nga xam ne am na ci biir weekend bi rétro sportu tey bi dañu am gan gu am solo muy yaat ma Lo ngeen xam ko bu baax a baax a baax muy koo xam ne dañ ko ràññee ci wàllu karaté bi dafa jóge sax fi mu nekk nii voyage. Euh, Casablanca. Euh, ñëwoon ci championnat d'Afrique yi foofu euh, ñu en junior encadré. ci petite catégorie yi nag ku xaw yaat ma nag xam ni il est multidisciplinaire. Mm-hmm. il parle de football il parle de basket mais discipline préférée mooy karaté. Mm-hmm. il parle aussi de judo. donc yaat ma yaa ngi jóge ci périple boo xam ni xale yi dañ fa demal mu doon compétition boo xam ni compétition africaine la bu am solo. nga war ñu wax li ngeen fa jëlee ak xale yi seen taxawaay ci biir compétition bi ak tamit médailles yi nga xam ni Sénégal galarde na ko fa en attendant bu ñu jógee ci loolu nag dinañ dem ci final coupe du Sénégal bi amoon ci diggante Jaraaf ak Stade de Mbour. te Jaraaf gagné Stade de Mbour deux buts dinañ dem tamit ci compétition africaine yi xam nga génération foot ak Casa ñu ngi woon ci compétition bi mais malheureusement éliminé nañ leen ñu ñëw tamit ci sport yi nga xam ne am na muy basket bi ak tamit handball bi ak yeneen discipline yi nga xam ne am na ci biir weekend bi kon yaat ma ñu ngi lay nuyu bu baax di am mbégte à chaque fois bu ñëw ci studio bi di waxtaan ak ñun ci wàllu sport. jërëjëf El euh, Hadj Papa Dieng sama mag sama xarit euh, sama xarit sama mbokk ndax ñoo bokk lépp. Euh, di nuyu auditeurs u Sud FM. sunu rajo waaw parce que euh, c'est une fierté euh, cette rajo ba mu dooree ba léegi euh, je me rappelle booba j'étais pigiste au soleil ndeysaan booba ñoom euh, jëm si yàlla jëm mhm. euh, kii Touré Babacar Babacar Touré mhm, ndeysaan ñëpp nga fa woon ak ñëpp nga fa woon ah, ak Ndiaga Sylla ak Ndiaga Sylla ñu nekk fa Euh, ma dégg ne dañuy ubbi rajo am na sax benn moment ñu ne ma ndax bëggu action. ma ne bëgguma action. Mhm. parce que xam nga boobu temps démocratie bi ak euh, àddina bi demeewul noonu. Mhm. ma ne ubbi fi rajo ñëw jàpp la. da ngay ragal da ngay ragal. da nga ragal dama mhm. ragaloon. ñu ko ku am fit koy def. voilà ma waxtaan ak Omar Dangalum di ko nuyoo partage mu ne ma. bul dugg si yooyu <laughs> mais loo gis si àddina fit nag moo la koy may. lay dëgg la Babacar daan daan am fit. non ñooñu ay ndaanaan la ñu woon. ñoom dañoo am fit. waaw Ndiaga Sylla Chérif El Walid. ils ont tout fait et tout subi. bien sûr. ba arriver à mettre en place la première radio. privée privée au Sénégal et en Afrique. je te dis. loolu c'est pas c'est pas évident. c'est pas donné à n'importe qui. non non non non. Hmm, c'est pas donné à n'importe qui. te loolu. ci pour la postérité. lay dëgg la kenn du ko fàtte. kenn du ko fàtte. waaw Babacar Touré kenn du ko fàtte dañ koy ñaanal. moom ak Serif. yal na yàlla yóbbu boobu ma am chance la nga nga liggéey mel noonu. Mhm. ci journal bu mel ni Le Soleil. 77 mhm. laa fi ñëw 78. Mhm. di nekk pigiste. yow baara nga fa fekk. Baara Diouf. non non. ndeysaan. ak waay waay waay non. borom édito yu rëy yi. mais mais Alaaji. <laughs> non Baara Diouf. quelle belle plume. non ba pare nag d'une gentillesse extraordinaire. et d'une élégance. élégance <laughs> wala léegi man ni may yet ma ça fait longtemps je vois ak ni muy waxee. ak ak diction ivoirienne. waaw <laughs> mais gis nga àddina. àddina dox na. waaw àddina dox na ba léegi ñu toll foo xam ne euh, Sénégal développé na mais des na. <laughs> alors jërëjëf si euh, sa question bi nga posé dem nañu fi Casablanca. Mhm. o Maroc dem championnat d'Afrique cadet junior senior. muy ñetti catégorie mu metti lool parce que boo demee fu mel noonu yóbbu ñetti catégorie dina am luy des. lay des mooy lan mooy munoo yóbbu catégorie yëpp ba mu mat. dangay seet. da tànn da ngay tànn. seet si cadet yi seet si junior yi seet si senior yi. loolu nekk lu lay fragiliser aussi. non qui qui élimine. voilà. nga dem nag fekk ku mel ni Égypte Maroc. Tunisie Algérie ñooñu Libye indi catégorie bu nekk ñu indi mu mat. mat ay cinquante. Euh, combattants ñun ñu indi dix sept. c'est pas possible. kooku mënoo fa jël premier. déedéet si nombre bi la. non nombre ba la. Mhm. Cameroun bi nga xam ne dafa progressé si wàllu karaté moo ñu ëpp. candidat 49 la ñu yóbbu. ñun ngeen yóbbu 17. ñun yóbbu 17. lan moo lan moo waral loolu. c'est parce que gis nga fii événementiel la ñuy def dañ koy wax fii te à chaque fois que ngay wax li nga xam ne mooy moo am inventé woo. dëgg la ñu ne da ngay sànni xeer. sànni xeer kenn sànniwul xeer ma ne bu dee sànni xeer li danaa sànni xeer. kon sànni xeer sax kenn sànniwul xeer. xeer dañuy wax li am. lépp ñoo ko bokk dafa am ñu ñu dénk. mbir rek mais ñoo ko bokk. ñoo ko bokk moomuñu ko sax ñoom. mu ko ci àddina ñëpp ko bokk. ñëpp ko bokk. Mm, quand même technique bi dañ koy déposer lu yàgg. ay huit mois. avant la avant saison bi ubbi wax nañ ni voilà compétition yi la ñu bëgg a dem nii la ko bëgg defee nii la ñuy soxla lii la ñuy soxla au lieu ñu traité loolu balaa muy jot. dañuy bàyyi bu mu des un mois deux mois ñu ne fiche technique bi li ngeen laaj duñ leen ko mën a jox. boobu ñu ngi ci basket bi. waaw boobu ñu ngi ci basket bi ak football bi jeex na moo leen intéressé. moo leen intéressé li des safu leen. billaay wallaay wax nga dëgg. Hmm. alors ma ne man euh, président bi mu ne. yow yow yaay yóbbu délégation bi dama ne ko dewuma. ah yaay eh, délégué yaay délégué fédéral bi. nga waaw ma ne ko demuma bu ma si def. parce que duma dem ci loo xam ne dañuy taxale. rus naa di dem ba foofu. xale yi di ma xool yenn bët yi. te doo matale te doo mat matale. dëgg la ma ne ko mais président bu ma dugal si yi waay. aw ma jot gi. li tax ma dem c'est parce que dañu waroon dem samedi ba. ma ne man doo bàyyi sama dojo di dem. Euh, dimanche lundi ñu ne non léegi mercredi la ñuy dem ma ne kon mercredi ça veut dire que bu ñu demee mercredi bu ñu àggee mercredi le lendemain matin jeudi la compétition yi commencé. c'est pas possible amoo jotu. récupérer dallu. xale yi dañ ne cëpp rek ñu yóbbu leen peser ak tirage au sort. te fa ñu jógee ak fii ñu nekk. dix minutes de marche la dañ koy dox. dañ koy dox ça dire que dara matul. Mhm. soo waxee ñu ne ministère bi def na lu mu mën ok def na lu mu mën mais bu doon man dafa naan bu ñu dem. mais matul. matul. Mhm. alors que nga dem di fa dajeeg say naat say say nawle. ñu ñëw dans de bon condition ñoo xam ne c'est la Guinée. Mhm. c'est le Burkina c'est le Cameroun. moi je li may wax ci Afrique au sud du Sahara laay wax. Mhm. waxuma ñële parce que ñee. égyptiens yi deux millions de licenciés la ñu am. karaté wallaay laa Sénégal ñaata la am. matuñu six mille. nga bëgg nga bëgg leen gagné. c'est <laughs> mais yow technicien nga. wax xam nga ni xel ni. ki nga xam ne dafa am 6 millions euh, 2 millions de licenciés. Mm-hmm. am ay infrastructures. yi yoo xam ne dañ fay nekk fa la nekk di lekk di naan di entraîner. di préparer yow amoo ko. ba pare nag égyptiens yi am nañu au moins quatre champions du monde ñun ba ñuy am champion du monde égyptiens yi fëlluñu. Mm-hmm. mais ñun dañuy nelaw rek ci histoire. ñoom ñu farlu. ñoom ñu ne Sénégal mii dootuñu raw. ñu ñuy dàq. dañuy jàpp dañuy dàq diñu jàpp. ba raw Algérie def noonu Maroc def noonu Tunisie def noonu ñu ëpp ñu infrastructure ëpp ñu licencié ëpp ñu xaalis ëpp ñu pas-pas ak lépp ñun nag dañuy débrouiller am des talents des combattants talentueux. yoo xam ne noo def dinañ yéeg podium. Mhm. mais alaaji ki nga xam ne noo def mu yéeg podium. ja neex naa dimbali. neex naa dimbali. day dëgg la. mais dañuy dévaloriser sa médaille. dañuy décourager sax. waaw naan la médaille de bronze. Eh. ak i médaille d'argent. mais podium la ñuy wax. mais ba pare mu mel ni loolu du dara. podium la ñuy wax de. podium. podium la ñuy wax tubaab yi ñu def xam nañ ko. podium boo xam ne yow amoo moyen waroo woon si war si woon yéeg. dëgg. waroo si woon yéeg de mais yéeg nga si te ma wax la naka la podium bii demee ki li tax ngay am podium da ngay dajeeg Alaaji Papa mu nekk tête de série nga ma am malchance muy égyptien nga dajeek moom premier tour nga daje benn marocain nga gagné ko deuxième tour nga dajeeg égyptien mu dóor la mais égyptien bi ñi mu gagné ñëpp ba dem final da ngay dajewaat ak ñoom pour am bronze ça veut dire que bu égyptien bi dee def quatre combats. pour dem final pour pour dem final. Mhm. daa def quatre combats pour jël bronze. Mhm. mais kooku il faut que ñu explique nit ñi pour ñu mën a xam. bien sûr. ba pare nag on a changé de politique ñu ne du fait que le Sénégal va organiser euh, les Jeux olympiques de la jeunesse. en deux mille vingt te en bokk na si. Mhm. au lieu ñuy yóbbu ay senior kese. nañu yóbbu préparé cadet yi mm, préparé yi ñu xale yi ni ñu gën a tuutee mm-hmm. ay sëriñ fàllu mm-hmm. soo gisee sëriñ fàllu bu ba ma ko indoon si studio bi mm-hmm. pour mu wax ci micro bi da nga koy am na médaille de bronze mais c'est pour l'avenir donc ñun suñu projection lool la beneen bi mooy heureusement que le président de la fédération marocaine nga am ne si le garde-corps principal du roi ñoo màggandoor nekk xale ba nekk mag kooku dem ba bind suñu président Mohamed El Mokhtar Diop ne mhm. dama bëgg ñu def benn coopération entre les deux fédérations yéen mën nañ leen jëlal au moins une dizaine de combattants indi leen Maroc ñu préparé wu mhm. mais loolu xéwal la bu mag léegi sans bourse de lier sans fay leen seen billet rek te ñëw mhm. ngeen lekk naan tëdd entraîné beneen bi mooy italiens yi ils ont dit la même chose payez votre billet venez en Italie ñu jël leen ba Jeux olympiques yi ñëw dégg nga wax ji a baax beneen bi mooy chinois bi ñu fi ñëwee temps yi passé mhm. dañ ne du fait que arts martiaux moom moo leen gën a intéressé. Mhm, mhm, nañ xam fu. karaté ak yeneen muy seen mu ne nañ jël dañuy jël discipline yooyu yóbbu leen Chine. préparer leen. tous les ans ñu yóbbu leen. indiwaat ñu dem te loolu bokk na ci xam nga euh, un bon athlète mooy kii mën dugg avion. ki nga xam ne bu duggee avion du jël portable am di photo. wala di xool ci suuf. du nelaw. mooy ki nga xam ne day dugg ci avion bi rek daal di sangu. da ko tàmm waaw da koy tàmm. da koy tàmm di récupérer. di doon guléet ci moom. voilà ñun nag ñu si bëri guléet la. kenn lañ si yóbbu muy mundoor seen te mundoor seen c'est le capitaine de l'équipe nationale senior. xam nga loolu man damay féliciter xale yi. Mm-hmm. dama leen di am na si koo xam ne may mun a ñaan ku ci euh, cadette yi la si junior yi la il a fait un exploit xaw na éliminer la champion du monde mm-hmm. égyptienne en demi-finale. c'est pas di jàpp si. waaw ah alaaji Papa Diop <laughs> boo ko boo ko seetaanee <laughs> da ngay di ree. dëgg la jàpp jàpp bu ñaaw sax. da koy marqué point 3-0. 4-0. 5-0 mujj gi kay ñëw 5-2 5-3 mu dem moom 6 6-3 égyptienne bi dugal après bi mu desee ay 30 secondes 40 secondes. Mhm. égyptienne bi de xam naa dañ ne na yëkkati tànkam na ko yëkkati rek. gagné ndax fekk kii du gagné champion du monde fekk xale bi raw na ko. 6-2 mhm. 6-3 mu mu def 8-6. xale bi dama ko bul jooy. Mhm. gàcce ngaalaama. waaw bul jooy. Mhm. faut pas pleurer. Mhm. def tu as tu, fait trembler le monde. Mhm. mais loolu nekk fierté. boo xam ne ñun dañ ne dañuy liggéey. xam nga tendre la main tout le temps. bu yàggee nga ñàkk fay. dañ lay jéppi dañ lay jéppi. moo tax de là-bas ma ne président. Mohamed El Mokhtar. il faut qu'on change euh, de, de, de, philosophie, de paradigme. Mm -hmm. Il faut qu'on arrête. léegi ministère bu ne mën nañ leen jox cinq billets ñu dem wuti vingt billets. bu ñu yaakaar ci moom. waaw bu ñu yaakaar mm-hmm. ci moom si ñoom parce que ñoom dañuy bàyyi ba. au dernier moment dernier moment deux jours trois jours leen mënuñu ko. dañ ne vingt cinq après ñu ne wàññi leen ñu wàññi ñu ne wàññiwaat leen ñu wàññi wàññi dix neuf. au dernier moment ñu wàññi deux. mais ñaari xale yooyu ngay wàññi. Hmm. mais Papa Dieng. dañuy bàyyi dañuy bàyyi. dëgg la dañuy découragé. dañ naan dootuma defati parce que dañ naan yi dañu yóbbu ñu leen neex. dëgg la te demul noonu. alors que ministère moo ne il faut enlever deux dans la délégation. tu te rends compte eh, des gens qui étaient préparés. préparés seen passeport ba ngeen téye di ngeen dem. tu te rends compte daal di bàyyi. dañuy bàyyi kay. man looloo taxoon départ ma ne man du ma dem. Mhm. parce que gàcce lay am. xaalis boo ma jox boo def naa ma jox ko xale yi. parce que da ngay yóbbu sa xaalis. dëgg la en fait da ngay jóge fii Sénégal jël sa benn trois cent quatre cent mille dem ba foofu gis difficulté. nga ne. surtout borom kër. voilà si ay xale. ay xale. lay dëgg la doo leen seetaan. dañuy bëgg charité dañuy bëgg lii dañuy bëgg lii dañuy bëgg lee koy jox. lii la koy jox. bien sûr. mais heureusement que esprit bu baax. Mhm. esprit bi ñi ñi àndal am na arbitre yoo xam ne ñoo fayal seen bopp. c'est am na arbitre yoo xam ne ministère moo leen fayal. mais ne leen mën nañ leen fayal mais duñ leen jox per diem. mais koo yóbbu daa ko jox per diem. lay dëgg la mais sport bi ñu ko xoolaat bu baax. non buñ ko xoolul. dina dem ba discipline yi basket ak football rek ay am. waaw yëpp yëpp yëpp du am. ñëw parce que euh, te kat même le football a des difficultés. Mhm. bien sûr dans le football local. Mhm. beaucoup li ñuy wax équipe A bi la rek ah. beaucoup de difficultés. mais les autres clubs ils souffrent. dañ ko dul wax rek. Mhm, di ko mbubboo nii rek. Mhm. c'est la c'est les titres mooy arbre bi caché la forêt. voilà. te loolu nag. jar na seet. xam nga di gagné am cinq coupes d'Afrique des nations. loolu c'est bien. on applaudit. c'est toute une fierté. mais yàlla nañ fa maintenir. mais loolu sport local bi moo koy maintenir. moo koy maintenir sport local bu fekkente ni euh, boo boo amee cinq jours yu baax. Mhm. saison bi jeex. nga jaay leen. Ah, dëgg. <laughs> naka nga gagné en Afrique. boo ko sax Afrique doo dem sax. Euh, gis nga gis nga arts martiaux doo passé premier tour. gis nga li may wax si karaté bi nii. Mhm. ça concerne le judo. waay ça concerne le taekwondo. les arts martiaux. les arts martiaux dans son ensemble. c'est bu ñuy dem dañuy cotiser. c'est pas possible. dañuy fu nekk la ñuy dugg di tàll loxo. mais loolu dafa leen déconcentré mais euh, sunu boy yi ba ñuy dem gis nga euh, kii yu jaune yi ñuy sol benn benn gis nga comme t-shirt bi ma sol nii dañuy dem marché dem jënd jënd si benn di 17 ku si nekk da nga ko fa jëndal sa bopp. après ñu yóbbu ko si ñu flokal leen ko. def Sénégal la nation. waaw def Sénégal si kaw def fédération karaté fii ñu sol ko entraîneur te dafa rafet. Hmm. parce que bu ñu demee foofu sax gis naa marocain di leen ko ñaan. mais benn lañ si am. c'est pas possible benn. benn xam nga bi ñuy bi ñuy waxee ouverture officielle des championnats heureusement que le Maroc a fait une belle organisation. Mm-hmm. parce que innovation bi dañ ko def euh, en vidéo d'écran géant. Mm-hmm. pays bu nekk ñu wane sa drapeau muy jàll. bu doon dañuy woo ñuy defalee si biir terrain bi nii kon lambay dina ñaaw. lu tax parce que di nga gis ni la ñu soloon sa départ moom la ñuy sol ba fin amuñu blouson. amuñu blouson. ay t-shirt la ñuy sol te loolu nekk na loo xam ni naqari nañu mais dama ne li koy saafara mooy ñu jóg si nag moo gën di wax di jàmbat nee naa yi nañu bàyyi jàmbat bi nañu jóg xeex beneen bi nga xam ne am na importance alaaji Papa Dieng mooy Ndumbe Fall arbitre mondial fu mu dem dans le monde dafa fayal boppam te boo deful cinq Ligue One minimum quatre Mhm. Ligue One. Mhm. doo qualifié Jeux Olympiques 2024 def na ko. à ses frais jël na xaalis dem laaj Moussa ma demb may leen ma billet. damay dem te gars yi parfois duñu comprendre. Mhm. buñ ko joxee mu dem. te bala ngay bala bala boo yeggee dañ lay rembourser mais kooku neex naa dimbali. parce que arbitre mondial la fé euh, euh, ministère des sports daf ko waroon jël en charge ne ko wax ñu sa. xanaa arbitre mondial fédération mondiale du euh, bi du ko leen jël en charge. si bu ñu nekkee sur place dañ leen di jël mais da ngay ñëw sur place. ah il faut être présent. ah oui. Mhm. du duñ la ko jox fële. Ah, yow yaa ñëwal sa bopp. yaa ñëwal sa bopp. bu ñëwee ñu toppatoo ko ñu waaw ñu toppatoo li si des. Mhm. à chaque championnat du monde fédération mondiale day maye deux billets pour chaque pays. Mhm. dimbali. yow nag yaa koy jël nga xool kan nga koy jox combattant lañ koy jox ñun. Euh, dana ko jox arbitre. duñ ko jox arbitre. Mhm. beneen bi Ndoumbé Fall dafa ndekee ñu man sax yëguma mhm. jël cinq arbitres femmes ndeke mi ngi leen di former pendant six mois. dégg naa ko keroog. waaw ci rajo bi. mu leen di former. Mhm. yóbbu leen ci benn ruq. di leen travailler. di leen travailler. ba xale yi jàpp yóbbu leen kër abes abes yóbbu leen këram ñu nekk ci piscine bi def ay mouvement man bi ma nee cëpp Maroc gis leen ci euh, restaurant bi dama tiit ma ne waaye ñi dañuy def fii ñu ne stage dañu dem dañu admise ñoom ñëpp c'est pas possible ci ñoo préparé seen bopp dama ne ñoom ñëpp juge bee ñoo préparé seen bopp ba pare nag xam nga dem bi nag la demee ndume def leen ne leen d'ici di mois ku nekk na nga génnee trente mille vingt mille quinze mille loo leen am joxe leen. c'est ñuy dajale di dajale di dajale ba ku nekk génnee billet ñuy dajale ba mu génnee prise en charge. loolu xanaa daw na yaram xanaa loolu ministère bi yëgu ko. ah boo leen ko waxee tamit lu lu muy jëriñ. xanaa ah, xanaa boo leen ko seen yaram xanaa war naa daw. <laughs> ñii seen yaram du daw. na daw kay quand même. Ah, mais gis nga nee naa la lu bëri am na yu bëri yoo xam ne. sa kenn mënu ko wax. kenn mënu ko wax. nay mais li nga xam ne am na ba des mooy am na euh, y vingt neuf pays en présence ñi si am médaille bëriwul y a beaucoup de pays qui sont rentrés bredouille Sénégal ñëw huit médailles. dëkk ak condition de préparation yi. gis nga bi ñuy wàcc aéroport maa ngi xool xale yi xam nuñ def mhm. dañu nëbb seeni médailles rus nañu wane bronze. rus nañu wone argent parce que dañu amoon habitude di indi or. Mm-hmm. wala dañ taxawul taxawu ba ca war. waaw <laughs> fédération def na lu nekk amuñu regroupement. wax dëgg. regroupement interne amul regroupement externe amul dara amul. quand doo ko sas dara kooku lu mu baax na. waaw loo jë loo indi kañ baax na. wax dëgg. alors que on a huit titres au niveau mondial wit yoo xam ne dañ ko liggéey. Mm-hmm. liggéey ko liggéey boo xam ni on s'est sacrifié eau et sang les gars ont sué mais à l'heure actuelle nekk na mbir moo xam ni xale yi li nekk seen bopp mooy Jeux olympiques de la jeunesse. Mmh. en 2026. gis nga gën a 2026. les gens pensent que le Sénégal dafay qualifier indi nombre de combattants bi ñu bu leen neex déedéet. Mhm. il faut que tu sois dans le ranking mondial. <laughs> pour mën a bokk. pour mën a bokk Jeux olympiques 2026. dëgg la. <laughs> maintenant nag pour être dans le ranking mondial 2026. Mhm. Euh, mondial euh, karaté. il faut que nga mën a bokk si ay compétitions internationales. bien sûr moo lay jox kii sax. nga mën a bokk. moo lay jox flam. war nga dem championnat d'Afrique war nga dem championnat du monde. war nga def ay euh, Ligue One. Mm-hmm. tournoi yi ay Open. Mm-hmm. nga pour que nga am le maximum. moo lay jox compétition ba pare te moo ay points. voilà mais loolu boo ko 2026 jot ñu ne Sénégal am seen combattant ñu ne benn la ñoom wala ñaar. dëgg la rafetul kooku fu ñu jëm. mais il faut que ñu toog ñu wax ak nit ñi. mais tout mais man parfois dama naan xëy na ils sont pas au courant. Ah, il faut les il faut les informer parfois ma ne ils sont au courant peut-être ñoom si seen bopp ils n'ont pas les moyens. waaw mais ngeen informer leen rek puisque ñoom tamit ñoom ñooy gérer. ils sont au courant parce que ngeen gis Seydina gis Diagne. gis nga Seydina. Mhm, ak Diagne yëpp. c'est le plus informé. Mhm. du, du euh, au niveau du comité olympique euh, sur le karaté. oui. lépp lu am ci karaté seen naa xam na ko. du mooy secrétaire général bi. waaw mais il faut écrire. mais gis nga. il faut ngeen bind. xam nga problème infrastructure il faut ngeen wax. ñi ngi wax ñi ngi wax ñi bind. mais yaat ma bu leen taay man de dama ne. Mhm. bu yeboo ñu mere ma. man dama ne bu yeboo ñu mere ma. mais da ngay wax. li may wax danaa ko wax. mais bokkul dafa ñu. dama ne. Mhm. ñu ma. Mhm. joxuma ñu joxuñu ma lu tax te buñ ma ko joxoon sax dinaa wax. wax dëgg nga xam ne euh, dafa war. waaw dafa war. Mhm. on ne tend droit. wax dëgg. ñun def nañu suñu devoir ñu ngi former ñi ngi jël xale yi di leen tàggat ñu ngi leen di def lépp. sans assistance waaw. te damay gërëm nag l'ambassade du Japon. Hmm. l'ambassade du Japon. dañoo bëri yéen mën nañu mën taxaw. non seulement daf ñuy jàppale. Mhm. mais daf ñu offrir un centre de d'entraînement et de perfectionnement. où pare na fii tabax nañ ko ci ci emprise u stade Léopold Sédar Senghor inauguré nañ ko vendredi bi passé. très bien. kooku. dëkk loo sa réew defaral jàmbur defaral la ko. alors que ñun depuis combien d'années on parle de temple des arts martiaux. oui fu ñu koy amee naka lañ koy amee basket am nañu ñaari salle. Mm-hmm. boo waxee ñu ne non yeneen discipline yëpp mën nañu bokk si ma lu ñu fay def. Hmm. lu ñu fay def football bi ñaata stade la ñu réhabilité. Mhm. ñaata stade la ñu tabax. Hmm, dëgg. mais nga ne bot arts martiaux yi nga xam ne mat nañu dix neuf discipline. ah dëgg dix neuf discipline martiale. amuñu stade. nga ne nañ leen defal benn temple. boo xam ne trois milliards. lamb ji sax làmb ji sax am nañ fu ñuy bëree. waaw <laughs> te lamb ji combien d'années la ñu la ñu toog di ko wax. Mhm. di yuuxu yàgg na. dañ jooy ba dañ jooy ba seen rangoñ jeex. waaw régime bu ñëw. ne on fera dëgg leen ko. <laughs> donc cela veut dire ñun on a des problèmes. moo tax tubaab yi wala naar yi kuñ si nga ne yéen fan ngeen di entraîner. ak loo leen di def. leen <laughs> ñun amuñu sax saal. c'est pas possible ñoom dañuy waaw léegi nag bu ñu demee bay xam yow. amoo saal waaw. yi nga xam ne yow condition yooyu amoo ko. <laughs> dootuñu la bàyyi nga gagné leen ci àddina. te égyptiens ils sont excellents. Hmm, tamit en junior en senior en cadet. c'est un grand pays du sport. dama ne ils sont champions du monde. champions du monde c'est la meilleure équipe au monde actuellement. ah en karaté. oui dañuy dóor japonais yi di dóor français yi pourquoi c'est parce que dañu am. infrastructure. Mm-hmm. adéquat. Ah, mm-hmm. am ay moyens am ay moyens financiers yu ñuy defal xale yi. Mm-hmm. ñu héberger leen ñuy fanaan di yeewu di entraîner matin midi soir. loolu la. ba ba ba ba ñoom Ali Ndiaye Momadou Ali Ndiaye di jël médaille d'or ak ñoom Fodé Ndaw. ak ñoom Yaay mi Seck. mais dañ daan dem CNEPS de Thiès. Yaay mi Seck ndeysaan. waaw dem fa toog fa ay euh, euh, trois quatre jours cinq jours di entraîner. chaque jour de VSD de VSD. de Ndiaye jàpp leen dugg leen laboratoire ba booy boo koo ci xool. muscle yi day génn. bañ demee championnat moom dañuy gagné facile. dëgg la yaa mais nag mais nag addina bi mooy dox. Mhm. karaté baa ngi dox. judo baa ngi dox. taekwondo bi mi ngi dox. kung fu bi kung fu bi qui fait partie maintenant des Jeux olympiques. Mhm. de la jeunesse. Mhm. donc ñooñu El Hadj Papa Dieng gars yi dañuy wax bu ñuy voyager. da leen di yërëm président El Mokhtar Abbas Diop dañuy dem ministère des sports matin midi soir di fa toog. c'est pas possible. pendant des jours. non soo rafetul. man leen ñibbi leen. wax oh, te parfois dañ naan wéy boo leen boo leen bu ñu bu ñu bëggoon sax ñu jël cinquante millions yi wala trente millions yi jox leen ko ñu toog mais boo ko defee ne wéy demuñu jox leen ñu ko dañ naan leen non demu leen duñ leen ko jox. Mm-hmm. duñ la ko jox. demoo. dañ naan de demuloo. Mm-hmm. billet d'avion hébergement dañ naan la demuloo kooku nag ngay mën a progresser doo progresser voilà une des raisons pour lesquelles j'ai di au président il faut qu'on change de paradigme naka la il faut pas nga ñëw ne gis Papa Dieng dama soxla vingt millions boo ko laajee vingt millions te yoru ko da koy sonnal dëgg la damay ñu ma ne Papa Dieng ñu de war nañu def lii ak lii ak lii loo ñu dimbalee loo ci mën bu dee cent franc mille franc cent mille. cinquante mille loo ñu jox ñu jël. waaw ñu teel la ko jox nag. waaw ñu teel ko joxe. Mm, surtout. et ça je l'ai commencé hier. Mm. dama def sama liste. mu ngi nii liste baa ngi nii. Mm-hmm. liste bi. Mm-hmm. ñii ce sont mes amis c'est des directeurs de société c'est des mm-hmm. amis que je connais. ñoo xam ne maa leen yar. c'est des bienfaiteurs. ma woo leen ne leen mosuma leen ñaan. mais bii moom danaa la ñaan. am na koo xam ne dafa ne ma mais grand man defoon naa ne rek may wax pour yow. yow yaa ngi muy wax pour Sénégal. Ah, nga ne ko nu may def. ma ne ko pour sama réew la. dëgg ma ah, te yaa ko jiite. oui. nooy def. nooy def. dëgg. il était heureux. nooy ndeysaan. mu ne ma vraiment grand. ñaanoo ma pour sa soxla dama ñaan pour soxla. danaa bokk. nooy ndeysaan dëgg dafa am Sénégal dafa am ñu baax. ak a ñu def ñoo ñoo yore réew mi def katu ñu baax yi. du ñu bëgg sax nga tudd leen. doon mukk ba leen boo liggéey boo ñëwee doo leen gis. oui wala doo leen jot. man dama naan mii danaa ko tudd mu ne ma. lu ma tudd na bëgguñu ko. borom teraanga du bëgg ko wax. c'est du bëgg nga wax ko du bëgg sax nga nettali ko nit boo ko nettali nit bu ko déggee sax dootoo ko defati. waaw dootoo ko defati. laay dëgg la maa leen xam <laughs> dama ci bari la. gis nga gis nga vraiment euh, merci dama m'avoir donné cette Permis, tribune mais bien sûr. parce que euh, il faut parce que ñëppay déglu ci Sud ah, ok. bi may romb léegi si buntu dojo bi ba nga naan ay papa Dieng bu ma demul. bu ma def dana ma rey eh, ñemewoo ko ma ne xaaral ma ma ma gaawantu daal di génn romb sama benn sama benn xarit bu toog si buntu këram. Ousseynou Kane ñemewoo ko ak frère am. Mm-hmm. maa ngi naan ko maa ngi dem si El Hadj Papa Kane ñu ne ma eh, Sud FM. ma ne <laughs> ah, <laughs> ah, <laughs> lay dëgg la. mais pour dire simplement que liggéey dafa baax. Mm-hmm. lay muy dëgg muy yëfu gor. boo liggéeyee yàlla barkeel. lay dëgg la. daal di fay. daal dëgg la. moo tax ñun ambassade du Japon dañ leen di gërëm leen sant. bu baax a baax bu baax a baax a baax waaw seen taxawaay. parce que bi ñu ñëwee ba inauguré ba ñu xool salle bi ñu ne lii manqué woon na karaté. lay dëgg la. te jàmbat ngeen ko fu ne. waaw fu nekk jàmbat nañ ko. waaye jooy ngeen ko fu ne. centre la boo xam ne c'est extensible. ndeysaan. mën nañ si def ay. plusieurs def si kii. ku soxla ñu abal la. lay dëgg la. ndax discipline yi koy di yi nga xam ne ñu ngi fi amuñu ko. Mm-hmm. bu ñu soxlaa ñu jox leen ko. da da ko koy abale. bañ a abale. Mm-hmm. am na loo xam bu ñu la ko mayee. dëgg si sa alal doo ci wut dara. non doo si wut dara. boo dee gor boo dee gor. Mm-hmm. alors loolu nekk na loo xam ne euh, championnat parce que on doit aller en octobre au championnat du monde. où en Hongrie. à Budapest. moo tax ma ne képp koo xam ne yaa ngi déglu émission bi. bu mu fëggee sa bunt bi yóbboo nga ubbi ko parce que dinaa toog du ma dem. dëgg parce que on a besoin de soutien. soutien bi nag du jour départ de. déedéet bien avant. c' est maintenant. Mm, c' est maintenant. pour que ñu mën a regrouper xale yi. préparer leen préparer leen. Mm-hmm. ba nga xam ne bu ñu leen di yóbbu dafay fekk ñu pare. Mm, pare. loolu. Mm-hmm. bu ñu ko defee. Mm. dinañu am ndam. c' sur parce que xale yi kenn gënu leen bëgg victoire. dëgg la waaye nag amuñu njàpp. mais boo amul njàpp nooy def. doo dem donc euh, ñi nga xam ne am na ñoo xam ne woo naa leen démb. Mhm. dama dem dama liggéey démb dimanche. Mhm. dimanche démb dama liggéey. Mhm. dama dem dojo ba maa ngi fa dem 16 euh, euh, heures. kañ nga ñëw. ba 22 heures dama ne ma kañ gis nga dama ne cëpp rek dem ngoon sa. le lendemain ma dellu liggéeyi le surlendemain ma dellu dem ñëw dojo ba 23 heures 30. mais xanaa douche boo fa demul xanaa sa yaram day metti wala danga ah. déedéet nga ko tàmm rek. tàmm ko rek. Mhm. gis nga El Hadj Papa Dieng man su ma toogee léegi damay entraîner matin ak mhm. matin bi damay dem entre. moo tax ngay ñaq rek. waaw tuuti xam naa bu ma ak yow bu ñu doon xeex de xam naa ne mu <laughs> <laughs> bi nga àndal. damay ñàkk rek. ngay ñàkk rek ça veut dire que tu t'entraînes. voilà sànq avant may ñëw dama dem dojo ba. Ah. ma ne non su ma demul dojo jàmm du am. c'est pas possible il faut nga ma dem. bi mu demee ma daal di yëngatu tuuti tuuti daal di xool montre bi jot na dix-huit bu ma demul musiba am de émission mu ñëw non mhm. am na loo xam ne bu ñu bu ñu la ko da nga koy nangu day la parce que ci développement réew mi la bokk Sénégal pour mu développer dañuy soxla rajo yi bien sûr soxla média yi bien sûr te ku mel nii Ablaye le président de l'association nationale de la sportive. Le, notre président. notre président. je te dis. <laughs> il de faire un travail. Notre, extraordinaire notre grand président. waaw ma loolu laa ni non notre grand président. tu le meilleur. notre non oh, c'est un grand président. day xam nga bu ñu ba gagné coupe d'Afrique des nations ANPS la boobu. non parce que il il est à l'écoute day déglu. waaw day déglu te xeebul kenn. te loo ko wax xas ko saaga ko. non toppatoo loolu. dana na la déglu dana la déglu. moom loolu mooy force te ANP soo ko seetloo léegi doole du mu am. dafa am écoute ba pare yaatal. waaw yaatal cëral. ba pare nag léegi sponsor yi dañuy seet si. non bien sûr. dafa yaatal dafa yaatal symboliser wu ko. non deful culte de personnalité. voilà daf ko yaatal. maa ko xam. non Ablaye Thiam moi je l'adore parce que. il est adorable. il est adorable voilà. le mot il loo ko wax mu déglu la. lay ndeysaan. lu mu xam ñëw nii la man de grand lu mu ci mën def ko ci waaw doo ko wax soxla lu jëm ci sport jamais de la vie mu seetaan la waaw jamais lu mënti doon dina ci jóg même bu dul sport loo ko wax mu leneen waaw da ciy jóg seet ñu mu war a seet woo ñu mu war a woo c'est un leader voilà c'est ça le mu ànd ak ay xale yu xarañ gisoo moo tax keroog ba mu wootee Sénégal ñëpp yow mu yéen da nga li ko Youssou Ndour wax waaw waaw mënu ma laa bañ a faye ko waane li ma lay faye ko dina néew ba nga xam ne damay participer ndax tey c'est une fierté pour l'Afrique. te keroog dama feebaroon mais ñëw naa. yaa ah, nga dëgg yaa ngi. waaw waaw dama feebar mais dama ne fédération sénégalaise de tir et chasse du Ba. yaa ngi moom gis naa indee bu. présenté nga ma ko mën na ko grand. da ngay jënd table. lay dëgg la force da ngay jënd table. lay dëgg la. te kooku lu ma ko xam def ko. dëgg la. parce que daf ma bëggal boppam. xam naa ci dara Mamadou Ba. <laughs> présenté nga ma ko. waaw day <laughs> def nii moom dafa laajte. daje nañu. Euh, te war ko invité. non bien sûr pourtant la ko de. waaw. je veux ñu xam. waaw njëriñam ci sport ak tamit li muy indi ak tamit li nga xam ni daf koy dégager. en maturité. mais gis nga grand tiir boo ko ñamoon yow. waaw tamit xam nga tiir beneen affaire di nga ñaq gis nga ñaq yi ngay ñaq. da naan. ci concentration bi concentration bi parce que tu es ton propre adversaire. mais féete à droite de. tout tout tout tout. te nag ku mel ni nga xam ne c'est le c'est le directeur mhm. moom da ngay ñëw mu former la. ñu ngi école police ñu ngi bat arti. te am jigéen. mu yéen léegi kañ ba pare nag ñu ngi former xale yi pour les Jeux olympiques de la jeunesse. xale yi ñu ngi leen defal euh, air comprimé. carabine ak air comprimé. loolu dafa baax ci. moo tax nag directeur technique bi ak président dañu war a ñëw. dañu war a ñëw ci émission bi. waaw pour sport bi ñu vulgariser ko nit ñi xam ko. oui pour mun ko pratiquer. parce que parce que ah, xamuñu ko. non non non c'est pas un sport populaire. non te dañ ko war a vulgariser. voilà c'est important. non xam nga euh, la population de Sud FM. Mm-hmm. est-ce que tu sais que Papa Dieng man damay déglu Sud FM la nuit. ak ak Moussa Gueye xaw ma. Moussa Thiam. Moussa Thiam. waaw. la nuit. émission boobu xaw ma tàlleel lamp yi. waaw Moussa. dama koy déglu. Mm, émission yëpp neex ba émission bi jeex. dëgg la. te yooyu nekk na euh, euh, ki euh, Omar Gueye. Mm-hmm. moom il a une belle émission le dimanche matin. Mm-hmm. Sud FM attention ah. non bien sûr. Sud FM c'est pas. boo ko tàmmee doo dem beneen rajo. non. boo ko tàmmee. man. Euh, ku mel ni ku mel ni euh, Alioune Sall. Mhm. nga xam ne sama xaritu papa la woon. dafa bëggoon sama papa trop. Alioune leen di sàn. waaw Alioune Sall bu ñëwee bu ma koy déglu fajar benn bi dama ko déglu fajar. j'ai pleuré. sportif la. am tax ma pleuré. dara football mhm. dafa tudd sama papa. leen di sàn. fekk maa ngi koy déglu nii. Mhm. toujours écouteur bi ngi sama nopp sama nopp sax léegi yàqu na ndax déglu rajo. mu tudd sama papa si jàkk ci si jumaa ji. ndeysaan nga moo daan ubbi di tëj. mooy nodd qu'il pleuve qu'il vente qu'il neige sama papa day dem jumaa ji. dafa wax ak yow. mais gis nga dama jóg. dafa wax ak yow. dama jóg sangu jàpp. <laughs> dafa wax ak yow. xam nga loolu. Mm-hmm. dafa am solo si communication bu baax. bu baax a baax a baax a baax. moo tax euh, man je suis de venir ici. Mm-hmm. Euh, parce que xam naa ni àddina ñu ngi ñuy déglu. Mm-hmm. te il faut que ñu dimbali sport de combat surtout. gis nga grand sport de combat yi. Mm-hmm. bu ñu leen dimbalee. ñoom mën nañ fi indi médaille olympique. mais gis nga nag doguma la. ndimbal lii heureusement sax yow yemale ko rek ci état bi. déedéet. ndax da nga ko tasaare. waaw. parce que am na ay bienfaiteurs yoo xam ni bu ñu déggee yenn yi dañ koy faj. bu gaaw bu gaaw. waaw mbir bu fajul rek lañ ko yëgul ki ko war a yëg bu ko yëg rek faj ko. xam nga xam nga le patron de du journal quotidien Le Stade. Mhm. Mamadou Kane. Mamadou Kane. sama rakk la. lay ndeysaan. daf ma bëgg bëgg boo xam ne lu ma ko sant mu def ko. danga baax ñëpp la bëgg loo. lay ndeysaan. Mhm. dama ko woo dem ma ne ko Mamadou ma ne ko on a des problème le karaté a des problèmes xaw ma naka ngay def ñaanuma la xaalis. laajuma la bii mais dama bëgg dimbali karaté bi. mais dama bëgg dimbali karaté bi. te li nga ko gën a mën a dimbalee mooy ci sa journal. Mm-hmm. bu ñu mënee am chaque jour. parce que c'est journal bien lu. waaw man mi su ma yeewoo il faut ma lire ko. non boo ko lirul doo xam li xew si réew mi. stade. non. stade làmb il ma lire leen. non il faut. par chaque jour. xam lu ma wax. Mm-hmm. mais grand yow yaa ngi may wax loo xam ne waxoon naa la ko fi y a près de dix ans nee naa la yow bul ma laaj. waxal ma def defal li ngay def nga ñëw nga ne man lii ma def. loolu jeex na. dafa licencier benn journaliste am. pour quelle xëy na maîtriser wu ko woon. Mm-hmm. booy bi ñëw ci man jooy. ma ne ko lu xew mu ni ma monsieur Kane maa daal may wax li tax. j'ai pas besoin de le dire. ma ko kan ça va nga def maa ngi fii ça va eh doyen. ko kan telle personne da nga ko licencié mu ne waaw man dama bëgg nga jëlaat ko. newuma ko. tu n'es pas rentré dans de la vie. ndaanaan ma ne ko dama bëgg nga jëlaat ko. dugg sax ci détails yi. waaw ma ne ko man maa la ko wax. <laughs> mu ne mën na ñëw suba. ndeysaan loolu dafa rëy. loolu nekk na loo xam ne pour man. non loolu c'est c'est monumental. c'est une fierté. c'est monumental loolu. mais yow Papa Dieng yow sax nga dem fenn di laaj dara ñu bañ. <laughs> toujours ma dem laaj duñ ma def dara. non non non gis nga El Hadj Papa de li ngay def ci li ngay def ci émission yi li ngay def ci làmb yow gën nga tax ma gën a bëgg làmb. d'accord ah ci say analyse. Mm-hmm. te analyse boo def dafay cent pour cent lay def ah boo nee waa ji du attaqué mhm. il va jouer un peu de ruse mhm. et puis ni nga koy waxee da nga koy wax avec flegmatique ak flegme daal daan ko daan ne békaay kii du attaqué mhm. mais bu ko waaj attaqué dina ko daan <laughs> dama yàgg seetaan lam mu am dama yàgg seetaan lam <coughs> gis nga loolu vécu la bien sûr vécu kay c'était un vécu. mu bu baax. moo tax su ma lay xool man su ma lay xool damay kontaan. Mm-hmm. parce que dama naan ça c'est des monuments. Mm-hmm. yoo xam ne dañ leen war di sargal. Mm-hmm. toujours dëgg la dañ leen war di naan El Hadj Papa Dieng mi ngi nii. am na ñoo xam ne bi ma lay présenté Mamadou Ba dafa la daan dégg rek. ak di la gis ci télé bi ni peut mais bi ma ne ko kaay ma présenté la El Hadj Papa Dieng. doo kontaan. ah, ah. ah euh, loolu. c'est un honneur. dëgg la pour yow pour la rajo. Mhm. pour la maison. Mhm. parce que Sénégal lañ nekk. bien sûr. xam nga su ma déggee ko naan du ma déglu rajo Sénégal wala du ma déglu RFM. wala du ma déglu dama naan la yow. doo xam li kon doo xam li xew ci réew mi. moo tax nag damay dem ba. di wax li sëñ Abdou baax Malick. lay ndeysaan. yal na yàlla yokk leeram kenn du moom. mu ne bu la bu la nit joxee loxo ni la. ban ban tarixe nga bokk. nee na nee ci sa loxo. kooku kooku seytaane la lay dëgg la. c'est le Sénégal. mbëkk rek dara man aram kumba ci am. cam kooku c'est le Sénégal ngañ penda ak bugguma penda. c'est le monde. Ah. kooku c'est c'est c'est l'univers. je le dis. <laughs> sëñ Abdou sama xaritu papa benn bakkan nii. dama ko seete ni ko ñaanal ma munuma ñaanal ma yow ma ne ko man munuma waaw ma ne ko lu tax munuma kan moo loo wax ni man sëñ Abdou. doomu Maodo. Hmm. su ma ñaanee yàlla may ma yow Papa Dieng doomu Sanu Dieng boo ñaanee yàlla du la may. déggal ma déggal ma keroog keroog laa waaru ci àddina. da ngay daanu. keroog dama jommi. bi ma ñibbi dama miir. léeg-léeg sax ma wax ko ni ko ma papa ñaanal ma mu ne ma ne ñaanalante. yow sama doom nga def sa papa sama xarit te bi sama papa génne àddina moo ko denc. tey pare woo ma ni ma lii sa papa am man wóoru ma ne sax dinaa ko am ndax man maa koy jullee. wallaay wax na dëgg de. ne ku mel ne man dina ma jullee. allahu akbar. mun ma ne sa xel dal sama xaritu papa la. est-ce que. ils habitent ensemble à Tivaouane ils ont grandi ensemble. yàlla. xam nga façon nit ñooñu amatul. cee te te te. El Abdou. da daan toog du toog deux semaines te ñëwul seet sama papa. Eh, comme li nga wax ni mu ne sama papa yow waroo ma seet si man maa lay seet. Eh, daf naan ma yow nooy bokk la gis du ma la dégg duma la gis te yow lépp yaa ci war a jiitu. day sànni su ko daa seetu damay rus. dama bàjjan boo xam ni daf ko gëm muy sama bàjjan Fat Bambey mhm. ndax xam nga seen rakk la woon moom ci sama ñoom papa mhm. donc saa yi mu demee ma añ lu mu xat-xat nañ mu yóbbu la sa papa mu ñaanal na benn bis xam ne dama ko fekk ci pantere bi muy mhm. bi ñu ko nuyoo mu ñu toog leen ndax fii la moo Alaaji Malick daan bind ci pantre bii ma nekk nii toog leen fi ma ñaanal leen. allahu akbar nga xam kooku suñu yàpp beneen affaire la. tuuti tuuti et man ay doom sumay xarit lañu. voilà ñu baax. ñoom Maodo ñoom Mansour ñu baax man nag kii kii euh, Pape Ma Pape waaw si. Pape Malick na yàlla yokk leeram. nga kooku bi mu génnee àddina. Mm-hmm. am naa am naa du ma naqari trop. damay fàtt damay fàttali Babacar Touré fa demee Tivaouane. Mm-hmm. jaale ji ko. dama ko demee Babacar boo demee koy jaale mënuma kenn man na ko lay def mënuma damay dem su ma yeggee ba Tivaouane dem taxaw toog ca garab yi ak sama oto jël sama kurus ñaan. ñaanal suñu Abdou ba pare ñibbisi man ko doo jàlle kenn mënu ma du ma jàlle kenn lay wax na dëgg kon Babacar Touré mooy ndaanaan lay na wax na dëgg loolu ma wax man ko doo mënu ma su mënu su ma demee tuwaawoon garab laay wut bu bu féex toog ñaanal suñu Abdou ziyaare ko ñibbisi waat wax na dëgg te noonu la ko defee wax na wallaay wax na dëgg gis nga ñooñu ay ndaanaan la ñu ça veut dire que kenn ëppale ko ci te li nekk ci biir bopp bi ak li nekk ci yaramam non tamit tamit sëñ Abdou bi gis nga loolu man daal man daal yàlla may nañu lu bëri bëri bëri bëri moo tax dëkk bi nekk ci jàmm. lay lazim. moo tax ku bëgg yëngal yëngatu. yaay yëngatu. dëkk dëkk gis nga gis nga El euh, Hadj Papa mhm. lu ñëpp bokk ànd. dëgg la dañ ciy ànd. yàlla may si yàlla may la ndam. dëgg la yàlla mbooloo lay wut. waaw sinon ku nekk sa sa kër ngay julle lu tax ñu daje jàkk yi. waaw <laughs> ak di mbooloo mooy doole. mboolooy doole. bi lay loo. moo tax bi fédération football ne nañ leen mànkoo. wuti ndam li am dem wuti ndam li. man xaw ma ku leen jox xalaat boobu. mais loolu. c'est le mot qui est fort. wallaay daal si mànkoo wuti ndam li. waaw man bi ñu ko defee ak di ko wax. Hmm. dama invité initiateurs yi fii ñoom ñëpp ku ci nekk. nga leen wax leen. ñoom lii la ma tëgg ñoom tus tus tus tus. président fédération ñëpp ñëpp ñëpp mais ñoom ñëpp ñu ni loolu rek moo ñuy jox ndam c'est parce que échec répété yi ñu am dañu xam li tax ñu daan échoué. oui division. ils ont compris que pour gagner il faut être ensemble. ils se sont réunis finalement ils ont trouvé la solution moo tax bi ñu ne maa ngi ko sama yaram dafa daw. moo tax keroog bi ñu gagné coupe bi keroog maa ñëw fii def émission mais keroog bi may ñëw ci yoon bi sax <laughs> maa ngi jooy. penalty bi Sadio Mané di tiire xooluma ko. est que. bi mu yëkkatee bal bi di ko dóor yi dama ne waru ko dóor. il n'est pas question pourquoi ñu koy jox bal il a raté un penalty dans le ah. ci ci biir match bi. Eh. problème yëpp moo ñu ko andil. la ilaha ñu koy jox dernière bal bi mu koy dóor man dama ko seetaan man su ma tiir bi de man yuux yi rek laa dégg. ñëw directement fii def émission. sa yaram taw li naan li naan li naan l'échec et un tremplin. plus enrichissant que le succès. puisqu'il accumule une expérience un savoir. jam xam nga échec baa tax. échec échec parfois baax na trop si doomu aadama sont les grandes défaites qui font voilà. les grandes victoires xam nga gis nga man koo dem wuti ndam li oh, quel mot damay damay toog RTS vingt heures hmm. ma ne coupe bi cette année day ñëw. ñu xool xool sax ni mu demee. waaw ma ne day ñëw. yàlla bu lay teral lu koy fonk yëpp eh, eh, da koy dégager. day leer nañ. noo xoolal yoon wi ñu def ba ak sunu premier match. waaw <laughs> ah. ak Covid bi ñëw. allah nos meilleurs éléments. ñu éliminer leen. c'est pas possible ba nit ña naan test yi. waaw euh, dañ ko euh, dafa dafa viser Sénégal. waaw wóorul. c'est pas des tests euh, justes ñu fexe ba génn ci loolu suñu joueurs yi ñëw kenn kenn suñu ak suñu yow xool équipe boo xam ne les meilleurs nga man man man biñ ne ñi dañu Covid dama waaru. bi suñu envoyé spéciaux yi ne wax ñu liste bi ñu Covid. man dama ne lii. jarul sax man dama ne complot la lii. jarul loolu la wax te pourtant test yi ñoo ko génne. dañu feebar. mais mu mel ni nag yàlla. gis nga dafay buy buy. buy defar buy defar day day day mel ni koy yàq koy waaw <laughs> boobu moom xam na li mu xam. ma ne gars yi départ muus arrivé gaynde laa gis. kenn mosu ko gis. non ba ñu génnee ci premier tour bi kay nag dañu carburé. à 100% waaw c'est fini waaw moom man boobu moom. dafa c'était comme un couteau <laughs> euh, ñu bàyyi la nga récupérer tuuti ñu ñëw nag ci football bi. waaw nga déjà solo waaw. Euh, si euh, coupe africaine yi. Mhm. dañu amoon ñaari représentant ñu Casa Sport ak Génération Foot. Génération Foot moo doon joué Ligue des Champions. Mhm. Casa Sport di joué coupe CAF. Mhm. mais comme li ñuy wax rek match aller def ci am importance. waaw ci match aller yi. waaw match aller. Casa Sport ci coupe CAF bi dafa def 1-1 ci arrêt de jeu yi mu am penalty raté ko. est que. xam nga xam nga c'est grave. c'est grave. penalty moom boo ko ratee. ah conséquence yi penalty moom dafa war am waaw koo xam dañ naan yow rek yaa koy dóor. te dafa war nga xam ne buy tëdd di nelaw. voilà lépp day xam ne moo sa bopp bu bu ñu ko bu ko téere ji. waaw. puisque sa bopp rek. day feeñ booy dox di dem day feeñ. wallaahi ndeysaan te da nga naan non du ma tiire loolu dara nekku ci. oui dara ñu seet koo xam ni moo gën a taxaw mentalement mu dem. tiire ko donc le Casa a perdu le euh, euh, la qualification au match aller. ndax bi mu raté penalty bi ci la raté qualification bi. wallahi lazim boo demee fee. contrairement à Génération Foot qui au match aller a eu un zéro zéro daal di ñëw mais sa c'est à l'avantage de l'équipe qui reçoit. qui reçoit zéro zéro. parce que loolu mooy bu ma demee match nul bu dul zéro zéro maay qualifié. oui. donc ah, c'est à son avantage moo gën ci match nul yi à domicile zéro zéro. zéro zéro donc ils ont fait zéro zéro au match aller ñu ñëw. retour euh, ñu dugal leen but ñu égaliser génération foot dugal deuxième but mais avec la jeunesse xale yoo xam ni ils ont quinze seize ans dix sept ans dix huit ans amuñu maturité boobu. dañuy topp ballon bi di daw rek. waaw dañuy jouer rek. il faut nga redresser leen ak di leen. canaliser di leen teg yoon xam nga loolu pendant quatre-vingt-dix minutes nit mënu ko. day metti ils ont perdu finalement mais dafa am wax boo wax ci émission ba ca départ ba da nga ni. Mhm. football boo chaque année nga jaay tes meilleurs joueurs. waaw ah, waaw doo mën a arriver au sommet. de la vie. te ñoom ils ont choisi le côté social puisque nee nañ xale bi tamit dañ ko jël. Ah. pour former ko pour ëllëgëm. mu dem jëliñu ko pour ay trophée dañ ko jël pour mu tëral ay waajuram pour mu tëral boppam ah. sagal boppam. loolu la ñuy wax fi ñoom ñëpp. donc pour ñoom xale bi bu fekkee feeñ na mu dootu ko mën a téyeeti. dëgg la dañ koy bàyyi mu dem ndax teraanga. gis nga esprit social boobu. ay non kenn mun si dara. waaw ne loolu àndul ak couronnement. àndul ak moom de. loolu bu fekkee da koy def. tu prépares des joueurs pour l' avenir ay nit ñoo xam ne da leen di former mais doo am trophée ndax pour avoir trophée il faut nga garder tes meilleurs joueurs génération foot il paraît que lu mat. quinze ou dem nañu. ñëpp dem nañu xam nga loolu loolu. ñëpp dem nañu xam nga loolu euh, yaat ma dafa bari dafa bëri dem nañu nga bëgg a yeneen xale ci diggante bi. gis nga man bu doon man. Mhm. gis nga man su doon man. Mhm. damay signé ak xale yi contrat mais di leen fay lu ko jar. Mhm. parce que fa ñuy dem di fa am teraanga Sénégal boo ko fayee un million. Sénégalais waaw. fii dina toog. nga fay ko un million mu toog. mu toog dëgg la daa wax nga dëgg. dama naan la danaa la fay un million par mois. pendant pendant deux ans. deux trois ans. non deux ans au maximum. waaw trois sax bari na. deux ans au maximum. après nga dem après nga dem. ko da feeñaale sax ci biir. de ce dana mën a jouer équipe nationale. wax dëgg. bu dee U 17 U 18 U 19. Mm-hmm. U 20. Mm-hmm. ba pare nag di jàppale sa euh, génération foot. et bi ñu xàmmee la en Afrique. voilà ñu xàmmee la. voilà bu ñu la xàmmee sa dem day yomb. parce que TP Mazembe. Mhm. ak ñoom ah, Orea. Mhm. mais équipe yooyu c' est parce que seen joueurs yi duñ dem. c' est parce que dañu dañ leen téye. dañ leen di fay ay 2 millions 3 millions. wax dëgg man nag man awuma 2 millions 3 millions mais mën naa la fay sacrifier parce que je fais un projet de budget. Mhm. boo xam ne damay def benn euh, business plan. bu wane ni yow je te prends pour. temps temps. parce que parce que bu fekkente ni. 12 euh, mois yi ça fait 12 millions 24 millions 2 ans yi. Ah, kooku da ngay toog. loolu laa fay ak boo dee xale. fay la prime de match. prime de but. Mm-hmm. yëpp dama naa la ko fay. Mm-hmm. kon ñu def publicité voilà publicité tiens. waaw kon ñu continuer ba ci kanam comme sa publicité bi ñëw donc fi mu nekk daal euh, pour yow solution bi daal mooy. sacrifice la. waaw jox xale yi ay moyens. yoo xam ne leen permettre ñu toog. waaw kooku tamit c'est une idée. dama naan mm-hmm. xale yi xale koy fay je même entre 500000 ba 1 million waaw. kooku c'est faisable. nga wutal ko peut-être euh, oto. du ñëpp sax doon mën a wutal oto mais bu leen defee loolu ci seen économie loolu dinañ ko mën a gérer. waaw dinañ ko mën a gérer. puisque ils sont internés. et puis dëkk bi un million kooku ci am. ci xale ci xale boo xam ne amoo jabar amoo soxla amoo dara. non teraanga la teraanga la teraanga la. kooku il faut que les gens. nit liggéey na ba sonn amul un million. mais et puis et puis euh, euh, grand. kooku teraanga xoolal xoolal par exemple Jaraaf Jeanne d'Arc si à l'époque. mais joueurs yi. ñu dem. mu xool temps Umar Seck. waaw Umar Seck. lay ndeysaan xoole comment la GA a ba dem ba final. Euh, euh, ah, wax dëgg euh, Coupe CAF. waaw Coupe CAF. Ah, dem phase de poule. ba pare nag ba pare nag supporters yi impliqué wu. bien sûr. dañu impliqué parce que supporter du rek supporter buy ñëw di saaga joueur yi. déedéet da ngay ñëw supporter bu am njariñ. da nga naan da ñaan supporter yi ku nekk da ngay joxe dix mille francs par mois. dëgg ndax dañu bëgg a fay cinq jours yoo xam ne. wax dëgg dañ pour ñu toog. wax dëgg cinq cent mille minimum. moo tax boo ko defee ñu dem. ils ont atteint la les phases finales. alors la gendarmerie de Dakar xam nañu def. Mhm. dañ def dañ def benn euh, euh, groupe boo xam ne le club des mille. le club des mille mille personnes mille francs par mois. mille personnes minimum mille francs par mois. c'est un million par mois. c'est bien organisé. mille par mille. ça un million. ñu koy am. loolu moo taxoon jour yi toogoon. voilà. ba pare Umar Seck nag jël léppam def si. ndey ndeysaan. yal yàlla yërëm yal na ko yàlla yërëm. Mhm. lu mu ñàkk si ko ñàkk waaw ginnaaw coupe euh, africaine yi ñu ñëw ci coupe du Sénégal. waaw coupe du Sénégal. jaraaf nag def na li nga xam ni tàmm na koo def. xam nga jaraaf c'est fois muy jël coupe bi. xam nga jaraaf c'est une équipe. coupe <laughs> de coupe. jaraaf booy dajeeg ñoom. surtout final. surtout final dañ ko mën dañ ko xam dañu mën final. dañ ko yàgg a def. démb maa ngi waxtaan ak leere. na ndeysaan arrêt central. leere laa doon waxtaan dafa ree ma ne ko yéen ni ma leen bañee woon. parce que boo leen dajeeg gendarme boobu gendarme laa doon football moom laa bëggoon. Mhm. yéen dañuy ñëw final dajeeg yéen ngeen dóor ñu facilement. mu ne mu ne ma c'est parce que. gars yi dañuy dem di préparer wu. Mhm. di def regroupement yu metti mhm. ñun nag dañuy ñëw relax. lay dëgg la. ñëw foog ñoom duma leen. dañ li ko tàmm. waaw dañu mën final. mais moom la ñu def démb. mais tamit dañ loolu ils ont bien préparé la finale. Oh. ba pare aussi autorité yi dëkk Medina yëpp. ñëpp ñëw personnalité impliqué wu. impliqué wu. c'est ça. ñëw euh, participer ci. absolument euh, taxawu ci. jàpp mais man dama ne. au-delà de ça maintenant. Mhm. le Jaraaf qui gagne la coupe du Sénégal. Mhm. warul yem fii. déedéet le combat continue. non da nga am gis nga autorité yooyu yëpp. nga xam dañu impliqué wu woon ci jàppale Jaraaf pour mu jël coupe da euh, bu ñu yem rek ci coupe bi. boobu yem si coupe nañ continuer. nañ continuer pour en une grande équipe. waaw une grande équipe. parce que ils ont joueurs yi prime mu 500000 leen jox de victoire. Ah. xam nga ils ont euh, ils ont des dirigeants généreux et particulièrement le président. ah oui Cheikh Seck. il est il est d'une générosité ah extraordinaire. ah oui francs lañ leen ñu jox xale yi prime de victoire. xam nga ko xale boo ko jox. Ah. dañ naan kii bu ma demee Coupe d'Afrique. ba dem final wala ma gagné coupe d'Afrique mën nañ ma jox prime bu bu triplé lii wala bu ko quadruplé. te boo boo gagné coupe d'Afrique bi lañ lay fay. Mhm. la ñuy fay si coupe d'Afrique bi. dëgg la man nga si fay xale yi. gis nga ñoom euh, prime yi ci ressources yi ñu euh, yi ñu récupéré la comme que xale yi ñooy acteur yi ñoo ko joué. waaw ñu jox leen ko ñu jox leen ko. xam xamal leen ko seen forme de grandeur. moo tax nag moo tax nag man xam nga man nag à un moment donné. moo tax xale yi daal nañ bàyyi xel comme li nga wax sànq di tëb di dem bala ñoo dem nañu toog. waaw surtout nag bu fekkee dañu nekk ci ak ay dirigeants yoo xam ni xam nañ si li ñuy daj. waaw am lu ñu leen yéene. et puis ñu ngi leen koy jox. parce que tëb dem na rek noonu tamit c'est c'est c'est faire de l'avant man je me rappelle bi ma nekkee junior à la gendarme. nañ toog match bu ñu mos a bu paree match bi samedi matin ñuy dem stade. Mhm. bu ñu dajee ku mel ni Gutenberg. looy ndeysaan. daf ñuy may 5000. dëgg lay dëgg man Christophe Sagna Basirou ñoo ñooñu. daf ñu koy may nii la yàgg na ko def ak a yàgg def loolu. yaat ma ñu continuer ci émission bi di wax ñu dem ci final euh, national bi ci basket féminin bi parce que foofu tamit euh, AS de Dakar ak Jeanne ñoo doon daje euh, AS de dacar gagné Jeanne d'Arc 69 53. Coupe du Sénégal tamit ba tey ci góor ñi ci dimanche ji ci huitième de yi bopp. ISO daf ko gagné soixante douze à soixante dix ASFA DUC gagné ko soixante treize à quarante trois ville de Dakar gañe ASC Thiès soixante six trente quatre douane gañe US Rail soixante six cinquante cinq Louga Basket Club gagné Mermoz forfait ñu dem ba tey ci basket bi jaraaf euh, dafa def forfait parce que mook DUC ñoo waroon daje mais finalement ñëwuñu. naa boobu ñu ngi seen préparation finale euh, coupe du Sénégal de football bi donc euh, dafa forfait ville de Dakar moo war a daje ak Duc en finale ba tey ci handball bi coupe du Sénégal ci maanaam demi-finale yi samedi euh, Jaraaf Jaaji Sarr dafa gañ dafa gañe Duc 32 à 28. jamono gagné olympique de Diourbel 31 à 14 kooku ci jigéen ñi la demi-finale yi. Hmm. ci góor ñi tamit Duc dafa gagné union sportive de Gorée 37 à 28 ci dimanche ji ASFA ak GA def 36 36 mais série tir au but ASFA mu mujj gagné 6 5 loolu moo am ci handball bi ba tey. Euh, euh, yaat ma Euh, li si des daal mooy làmb ji li nga seetaan làmb. bañ a seetaan yee làmb làmb gis nga Papa Dieng. am nga mbër. Euh, man nag xam nga euh, mbër bi ma gënoon a franc. bi ma jëkki seetaan làmb. bi ma non bi ma jëkki dugg si stade seetaan làmb. man nga teel a woon. waaw temps xam nga tax xam tax ma faawoon ko am vitesse ci fecc bi ah, man mos gisuma ko mu bëri dama ñëw rek gis muy fecc man a waaye yéen kii di fecc di ree rek kan la bëri ah, bëri la gën a man ñu ne ma ñu ne ma kii muy mànga de champion toog na dix ans fekk mu daje woon ak Birahim Ndiaye waaw toog na fi dix ans kenn daan ko daa ilaha illallah am vitesse waaw mën a bëri mën a xeex champion sérieux bu mel noonu musul am. xam nga li ñuy wax li ñuy faral di wax ci sport naan la meilleure façon de de se défendre c'est d'attaquer. Hmm, ma nga noonu la naan maa nga da nga naan peut-être rek mu song la. waaw daal di dóor crochet gauche droite. rek gal gal ba pare dal. non noonu loolu doon bëri dafa mais ñi ma euh, ki ki nga xam ni nag dama koy xool te aw ma satisfaction déjà euh, bëgg ni muy def ba tey des na mooy euh, Sa Thiès. Ah waaw Sa Thiès pour man. Mhm. kenn waru ko daan. waaw mais nag bëri dafa doy waar de. waaw moo tax nag mais xam nga euphorie. waaw dafa am vitesse waaw waaw nga dëgg. xam nga euphorie lay bëree moom euphorique waaw nga dëgg. moom day ñëw naan maa la mën. non du noonu. dama lay gagné moom la bëri booy donc il respecte pas bien ses adversaires. moom la bëri Malick Niang moom la bëri booy. voilà mhm. alors que c'est des combats yoo xam ne da nga koy négocier. Oh, combat waxtaan la. xam nga li ñuy waxante si. Euh, ca biti ak face à face yi. face à face yi ak bésu combat bi moo leen di daaneel. ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir koo gis mu naan dinaa la dóor danaa la daan dinaa la euh, nii nit li mu nar a def doo ko doo ko wax boo ko waxee doo ko doo ko def gis naa benn mbër bu ñëw waa ji di wax di saaga di wax di hmm. di mu ne patt rek loolu kenn du ko wax ne patt rek li nga nar a def nit waaw boo ko waxee du fa jaar daan na ko xam nga wax ji wax ji yàq wax ji ne négal ba arbitre sifflé jaru ko bu arbitre sifflé jaru ko mais gis nga hmm, jaru ko ma remarqué nag waa jooju si tele bi keroog si seen face à face ma koy remarqué. Mm-hmm. mais ba ma seetaanee combat bi. Mm-hmm. son adversaire taxawul sax si kanam. tamit làmb moom kenn du ci digg kenn du ci yéene ne dara di ko wax. la ilaha illa boo boo ko waxee rek soo somatul doog ko def. mais dañ ciy booleeg yàlla nag. du dëgg. yàlla moom lépp. boo ko si boolee am jàmm. wante lii laa lay def. wante dinaa la def nii. koo ko wax. waaw. doo ko daan. sox moom dafa daan garga deux sox donc fu mu nekk émission baa ngi bëgg a jeex li ñuy def mooy ubbi antenne bi. ñi nga xam ni dañu war a woote ñu woote ci serveur bi serveur bi comme que dañu changé numéro bi. Mhm. il faut il ñu jox la ko. waaw ñun di serveur bi. waaw ah, technicien baa ngi ñëw waaw technicien baa ngi ñëw comme ça. ñi nga xam ne bëgg nañu woote parce que am na ñoo xam ni xëy na. nañu woote li jëm ci làmb ji. am xam ne xëy na nañu woote. ci karaté bi ci bi. am ñoo xam ni dinañu woote ci football bi. c'est ça. ci wàllu coupe africaine yi nga xam ni génération foot ak équipe bi nga xam ne mooy Casa Sport dañ leen éliminer te élimination mais man xam nga lan ma jaaxal. Ah. ñu ne même jour la ñuy joué coupe Sénégal bi. waaw waaw ak génération euh, di jouer ak équipe bi nga xam ni. mais loolu loolu naka la mënee ne. doy na waar rek. mais Papa Dieng dañuy wax nag mais. ca dëgg-dëgg loolu kay ñëpp la jaaxal. man affaire boobu man. programmation bi le même jour. waaw ci compétition africaine bu am importance bu toll noonu ah ñuy joué euh, di ko di joué benn bi Thiès benn bi ñu ko joué Diamniadio. waaw xam nga loolu c'est c'est diminuer même les forces de génération. foofu évidemment ah donc ñi nga ah, xam ni dañu war a woote ñu ngi wootee ci 77 128 67 67. ñu dugg ci maanaam waxtaan bi nga xam ni mooy rétro sport te suñu invité tey di yaat ma loo joxe seen xalaat ci émission bi bu leen neexee ci football bi bu leen neexee tamit ci karaté bi bu leen neexee tamit ci ci làmb ji parce yooyu yëpp doon na ay waxtaan yoo xam ni ak ci même même ci basket bi ci bi bien sûr ah ci sport yi ñuy wax yëpp ku ci nekk rek boo ci bu la neex rek nga wax ci am na ku nekk ci ligne bi allo allo euh, Pape Dieng. waaw. Abdoulaye Ndiaye la na nga def Ndiaye. ñu ngi di ziar bu baax quoi. ziar baax Ndiaye. tey nag invité nga kàngam. ah <laughs> moo moo tax li ngeen ko wax fii vraiment téere la quoi. te yaat ma li mu wax nii loolu moo am quoi cest à c'est le malheur Sénégal. c'est triste. Euh, c'est moom moo wax fédération moo wax ay difficultés yi am mais bari na ñoo xamante ne. ils vivent la même chose. dëgg la kay dëgg la kay à part le football et le basket. donc lépp noonu la Sénégal lépp noonu la. Ah, on n'évalue ah. pas. Hmm? on donne pas les moyens. dëgg la waaw nag waaw c'est ça quoi. loolu dafay ñaaw sax même le football yàlla moom sourire nii rek. dëgg la gars yi génn nekk si biti nekk ay professionnels. rek dëgg la euh, ñu am kii mais bu nekkul loo xamante ne c'est un produit local bu nu tabax kii ba mu ñor amul. dëgg la waaw. donc euh, vraiment ñu ngi leen di féliciter. Mhm. di leen encourager si affaire bi lii la quoi euh, donc euh, il faut lu doxul da ngeen di wax ne doxul. bien sûr waaw. waaw c'est ça. muy dëgg boo waxee ñu ne da ngay critiquer da ngay nangam nangam mais non. mais critique mooy suñu yoon si suñu yoon ci train yi ñëw à l'heure. <laughs> train yi train yi ñëwul à l'heure la ñuy wax. waaw fi affaire bi yàqoo foofu la ñuy wax. dëgg la loolu mooy defar am réew. waaw waaye toog fii rek naan eh. Eh, eh, gongo gong gongo non non non non. li doxul la nii la nii la ñuy dut baaraam wax ñu fexe ñu ñu defar ko. dëgg mm-hmm. donc ñu ngi leen di remercier bu baax. jërëjëf euh, yéen ay kàngam ngeen. donc mm-hmm. vraiment xam nañ leen si si réew mi. dëgg lu baax ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant merci. jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf waaye gis nga xalaat bi nga xam ne kooku wax na ko. tamit yaat moom mooy li ma la wax. waaw boo amee naqar da nga koy wax. bu baax boo ko waxul kenn du ko faj. maa la wax loolu. na am na nga xam ne mu nga toog di wër naqar jàmbur pour faj ko te bëggul kenn ko ko wax. waaw bëggul kenn ko ko xam mais kooku bu ko yëgee da koy faj. man de dama koy wax dama ne man. am na keneen ku nekk ci ligne bi. waaw jël ko allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam maaleykum salaam wa rahmatulah. Alaaji Papa Dieng. waaw. kii da Omar Thiam jam bugum la Kaolack. Umar Thiam eh, Umar waay na nga def. <laughs> alaaji Papa Diagne. <laughs> Umar waay. du may tardé seen émission de. lay Thiam. <laughs> ah ngi leen di félicité bi. yaat ma loo. waaw. waaw yaat ma loo. jërëjëf Thiam. man nag xam oh, nga man produit làmb laa man. moom li ma def yow kenn du yow Sénégal moom. keroog bu ngay indi Mame Ndiambane contre Mor eh, Fadam keroog stade Iba Mar tëgg bu nga tëgg ak ah bilaay dëgg. maa ngi toog keroog. waaw ak keroog kay da nga toj stade ba. ak bëri mag booy ñang bëri bu rëy ba. waaw waaw dëgg la ca football ba. dëgg la mais ci rythme yi wax man rythme ma non je pas non man man kay su may wax man kay rythme ma tëgg maa tax may wax. voilà man nag bëgg naa ngeen invité ma ma décortiquer. saa yu la neexee dama wax la origine bi. non yow kay. envoyé ñu sa numéro. comme ça saa yu la neexee ñu invité la. jeex na ça nous fera plaisir ma numéro 77 la. Uh-huh. huit cent quatre vingt seize. Mhm. cinquante deux. Mhm. quatre vingt quinze. Omar Thiam yow yow yow invité le plaisir la sax. waaw Sa Thiès dëgg la de. Mhm. Ah <laughs> Sa Thiès bu teyoon du neex a de. dëgg la non Sa Thiès loolu kay ànd naa ci la waxal noonu waxi technicien la la wax. parce que moom non moom mais c'est grand lutteur. non c'est un moom daal day yàkkamti affaire yi. waaw day bëgg a parax parax parax. waaw maa ngi kontaan nag bu baax a baax a baax. jërëjëf yéen yéen analyse bi froide ngeen di def yu lucide. jërëjëf dëgg la Thiam vraiment man dama leen di suivre chaque jour même rediffusion bi sax dama koy déglu. dëgg la hmm. Thiam. waaw vraiment maa ngi leen di félicité maa ngi fi ak Bourama Ndiaye. sama boy. dëgg la Ndeye waaw waaw waaw waaw. waaw naka maam Njëmbaan. ma rajo la quoi. waaw waaw man jamaan nag ñibbi na ma moom malheureusement bëggoon naa la ko wax xam nga dafa am tànk bi moo ko daane presque mënatu la doxal ah, waaw ñibbi na mbam eh, waaw il est passé dans l'oubliette moom it fàtte nañ ko déedéet fàttu fàttu ñu ko Sénégal déedéet fa ah. ñu ngi koy laajte yooyu moom bëgg naa bëgg naa ngeen def ci kii quoi parce que vraiment mm-hmm. euh, war nañ ko fàtte wuñ ko de fàtte man man ñibbi na mbam dina mhm. bamloog seen dëkk. lay des yàlla may wér. amiin yaa rabbi amiin autorité locale yi nga xam ne ñoo dëkk ca gox. waaw waay non collectivité locale yi ñooñu kii ngeen làmb ji kay moom. làmb ji moom. Mhm. xanaa bayal rek bu rek waaye moom. te sport la boo xam ne c'est notre sport national. dëgg la. waaw waaw dafa am solo ci réew mi parce que c'est notre patrimoine gis nga euh, Pape. Mhm. allo. maa ngi lay dégg bu baax. fi may jeexale. mooy Pape un peuple déraciné produit des orphelins aliénés merci. waaye jërëjëf jërëjëf jërëjëf Omar Thiam da nga wax boobu mu wax. waaw xam les sportifs ne sont pas contents. wallaay de leurs dirigeants et de leur autorité. ndax boo seetloo en Europe aux États-Unis un peu partout les anciens sportifs gis nga euh, cër ñu leen jox. ñoom oh. ñoom ku ñaq pour la nation lay tubaab du gàddu àq. du jamais. ñoom àq la ñu ragal ak ak yelleef ak yelleef ku mës a défendre drapeau bi. wala nga défendre nation bi boo demee. ba nga xam ne nekkatoo en euh, euh, am na ku nekk ci ligne bi am na ku nekk ci ligne bi. Mhm. dañ lay woo am lu ñu la cërale allo. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw maa ngi dégg bu baax. waaw Mouhamed Thiam Malicounda Mbour. mu nga def Thiam. man foofu laa bëgg a dëkk nag Malicounda moo ma neex. <laughs> tur bi dafa ah, neex ah foofu rek laa bëgg. dafa neex kaay kaay kaay. kaay maa ngi lay ñëw. yow kaay ñëwal ñëwal. incha allah yow moom yow moom yar ma moom boo ñëwee. <laughs> Eh. dañ lay dañ lay wutal pàkk yow. wutal leen ma foofu rek laa bëgg a dëkk nag. <laughs> bilaay wallaay ñëwal gaaw ñëwal gaaw balaa muy trop tard. incha <laughs> man mi Dakar laa màggee fa laa jar dañu fi affecté rek. yàlla yàlla daf ma jënd fi waaye rëccu wu ma ko. benn yoon foofu dax Dakar. Oh, pes bi nekk Dakar bu tàng mi. ah non yemuñu yemuñu benn yoon. Malicounda. Malicounda daal yemuñu benn yoon. Hmm. ba pare 40 minutes nga egg Dakar. dégg nga de euh, mooy yéen. man damay def Dakar Malicounda ay trente cinq minutes. ak ak ak permis péex mi. yaatu man péage bi eh? bi rek ma péage bi rek ngay jël. et puis yaatu na. dëgg hmm. ma fa pak ak air marin incha allah incha allah incha <laughs> waaw vraiment yaat ma di leen féliciter vraiment yow moom li nga def ci sport kenn mënu ko naatable. ndeysaan jërëjëf waay. waaw yaa ngi topp si tànk ñoom tonton Pape Dieng. wallaay lazim. waaw ak euh, ñoom. Ablaye Diaw ak. wallaay ñeneen ñi Ablaye Diaw moo gën a vraiment <laughs> yal na yàlla topp leen. yal na yàlla taxawu leen. amiin yàlla waaw. Euh, dama par félicité Jaraaf. Mhm. waaw euh, parce que soo xoolee final bi nu demee Jaraaf moo gënoon a sérieux. waaw mhm. préparation ñoom nu ñu préparé seen seen supporter rek seen yëpp ñoo gën a sérieux. Mhm. waxoon waaw parce que non xoolee Mbour fii maa ngi dëkk Mbour fii mais démb nawetaan dafa am. ah oui. c' est mais xale ah, yi. ñu ngi wax man daal. Hmm? affaire seen maire yëpp maire yëpp dañu dañ jël ay bus mettre ko la disposition des gosses pour ñu dem stade ah. xale ma toog ba 15 heures ma gis nañu pare man leen foo jëm ñu ne ma dañu am match tey man leen pour pour ñu ne nawetaan man leen mais pour la nawetaan di am te. normalement dëgg final coupe du Sénégal. di di di jouer mbuur boo ko amee loolu baaxul départemental équipe départementale du football ngeen ni. loolu baaxul. ngeen bàyyi ko ñu dem nawetaan tu yow nga am final. Euh, bu am solo national di jouer nawetaan. tu te yi fi nekk yëpp. maire yi fi nekk yëpp yëpp yëpp génne ay bis. jox ko xale yi ni leen dem mais boo demee boo xoolee stade Jaraaf moo gën a mobiliser. waaw c'est pas sérieux mm, mm. jaraaf kay moom. Hmm? moo taxit. li ci war a parce que ko gën a bëgg. moo tax ba dañ leen di gagné. dañ di gagné euh, sport marchandise la day jaay. day jaay bilaay day jaay day jaay. te moo tax mi ngi noonu seen saison. moo tax saison dañ leen day jaay xoolal prime ñaari final ñaari final ñu kapoot la. waaw waaw xoolal prime jox joueur yi nga xam ne day jaay. day jaay kenn voilà voilà ah, victoire ndam dañ koy jënd. Ah. day jaay day jaay dëgg rek dëgg rek kay ndam day jaay dañ koy jënd. dëgg rek kay dëgg waaw jaraaf dafa jaraaf dafa jënd ndam li. bilaay maa loxo dafa motiver ay joueur am. préparer leen. jox leen ay moyens ñu bëri ñu jox leen prime bu ko jar. dëgg la Ndofène Ndofène Fall ba mu ñëwee lan la wax foofu. dañ koy préparer dem si enchaînement yeeg mag yeeg ñëpp léegi joué wuñ benn détail ñaan préparé journée dañu mën. dañu mën dañu mën final dañu mën final. dañu mën final. dañu ko mën dañu yàgg final. ñaata final la ñu jël wallaahi. ëpp nañ ko ëpp nañ ko. seize seize voilà vingt deuxième final quoi. waaw vingt deux perte nañ six. vingt deuxième fois xam. c'est une grande équipe. non ils sont habitués à être ah couronnés. am ay dirigeants yu mag a mag a mag. ah oui moo taxit. am dirigeant mais li nga wax li nga wax ci karaté bi. Mm-hmm. vraiment c' est touchant mais mais da ngay comprendre ministère du sport benn budget la am. waaw. te budget te nag Sénégal da bari fédération. <laughs> waaw yéen déjà yéen déjà ci arts martiaux rek ñaata. ñaata kii ngeen am 19 19 discipline martiale. di voilà 19 discipline. voilà basket beeg kii les sourds mi yeeg ak yooyu. ñëpp kenn c'est-à-dire que cest dire que man li ma doon wax mooy football ak basket bi nga xam plaidoo xaalis. Mhm. ñoom ñoo waroon di génne quote part pour yeneen yeneen euh, fédération yi. voilà voilà parce que parce que mënuñu jël xaalis yëpp def ko si football. dëgg la ay bu ñu ñëwee bu ñu gënee ñu may leen terrain jox leen dix millions. te ñooñu soxlawuñu may da ngay am da ngay may ko amul. voilà te ñooñu soxla Sadio Mané Sadio Mané boo ko joxee. terrain tooñ nga ko da koy maye da koy maye da koy maye. il il gagne soixante dix millions par jour. voilà par jour il gagne soixante dix millions. par jour fédération lu muy gagné lu mu gagné war génne benn pourcentage pour aider les autres. Euh, non quand même. quand même hmm? voilà. dëgg la parce que mënuñu ko. yéen daal loolu si mën a génnee rek loolu si mën a mooy wut ay sponsor mhm. rek. banque yi yeeg société yi nekk ci yooyu yëpp. ci loolu laa nekk nag ci loolu la nekk nag. loolu rek ko mën a mais sinon. sinon. Euh, suñu état du ko mën. mënu ko. Ah, dina am volonté bi bëgg ko. ba fi ma tar baa nekkee vraiment def na lu nekk mën mm-hmm. mais nag. mais nag xam nga bala bala muy neex. ñu ne la lii mënuñu ko. Euh, def nga def nga fiche technique mais fii ak mois on ne peut pas vous donner ça. ñu teel la ko wax voilà lii lañ la mën a jox te li ñu mën a jox ñu ñu wax la ko jox la ko nga génn si teel la ko jox waaw mais du dañuy bàyyi ba dañuy maa ñu ne la mënatuñ ko teel la teg bien sûr bien sûr teel la bien sûr loolu tamit loolu mi ngi si waaw pour bañ la yàggal pour bàyyi ñeneen ñu dugg mm-hmm. vraiment di leen sant di leen jërëm jërëjëf jërëjëf waaw di féliciter toute l'équipe xel merci jazakumullah encouragé équipe bu dans son ensemble ah bureau beeg dirigeant yi parce que ni préparé final bi. Mhm. c' est extraordinaire. ah en tout cas négligé wuñ benn détail. Ah, je te dis ils ont tenu une conférence de presse explicite. te boo lay xool boo boo xoolee équipe sa xam nit ñi dañoo. préparé préparé final bi ils ont dit que bi ñu demee ba xam ne mënatuñ jël championnat bi focus la ñu def. waaw focus sur le la coupe. ils ont mis les ils waxtaan ak joueurs yi jóg seet fi nga xam ne fa lañ daan jaar ba am ndam. ñu jaar foofu puisque dañ ko tàmm dañ xam yoon wi xam yoon wi boo ko xamee kenn du la ko. non non xam nañ ko vingt deux fois. di match bi pare li nga xam ni am nañ ko un recette. oui ñu jox ko xale yi prime ku ñu nekk ñu jox la cinq cent jeex na ma xale yi ku ci dem boo demee seen kër ba sangu. waaw ba toog waaw. daan na yaay am lii papa am lii am lii ak rakk ak mag. daan na rakk ak mag xam nga loolu ndam la. ah day barkeel. moo tax bi lay. Ah. Euh, motivation dafa am solo. am na solo trop ci lu ne. jaraaf nag loolu lay def. ci lu ne en tout cas. Euh, mais nag je félicite aussi le stade de Mbour. non bien sûr parce que man je ne les attendais pas à euh, nga dem performance la. non mais. gis naa si benn xale bu si doon jooy jooy yu. mais dégg auditeur bi li mu wax. Mhm. mobilisation bi ñu waroon def la def. deful waaw. te loolu moo dul yoon. du yoon de. parce équipe moom bu fekkee dafay dem final. Hmm. la mobilisation doit être. mbuur ñëpp waroon na jóg. ñëpp waaw. warul am benn compétition bu fa am. ci dara. na ñëpp ñëw jóg ñëw jàppale équipe bi. bu perte ñu xam jàpp nañ moo tax man la final dañ koy sport ndam dañ koy jënd <laughs> marchandise bu ñuy tegul dañ koy jaay kooku prix yaay. le plus offrant moo koy jël. moo tax ay Égypte ay ay Maroc ak ay kii ñooñu dañuy jël dañuy jënd. xool ñaata yoon lañ jël ko. nga nga ñëw. ay ay ñun beneen nañ ko jël di tëb di daal. ñoom ñoo ko sept fois waaw. te am na ah, temps yoo xam ne dañ ko tegle. waaw suprématie totale sur toute la ligne. je te mu xool 86 bi ñu leen di gagné match d'ouverture. wallaahi ñëpp naan Sénégal jël na ko. ak fu ñu mujjee ñun génnuñu sax. Euh, waaw génnuñu pool. ñoom ñoom ñu dem final. ndax defet bañ leen gagné dañ xam li tax ñu gagné leen. euphorie rek lañ leen gagné keroog. ak enthousiasme. oui ah. am benn occasion dogal ko. euphorie ndax boobu amoon nañu talent. mais on n'avait li ma Roger mi laa wax dañ daje ma yéen ngeen toog 18 ans ne <laughs> ma wax ak kii mënu ma li nga wax dëgg la de. te <laughs> wax dama dem waat yóbbu ma fi fi waa CAF di loge xam nga ma waat kilifa la. walaay ndeysaan. ma jub Fawcet yooyu ma leen ni leen kii. la plus grande radio privée de l' Afrique de l' Ouest xam nga waat. waaw waaw da koy ñoo ko envoyé en mission. il est venu pour demi-finale yi ak finale bi il faut que ñu wutal ko fu mu nekk boobu ñoom ña nga ña nga ña nga ña nga wog deux mille ak dirigeant CAF yi. ndeysaan. mais bu bu Roger Milla ñëwee ba ma wax de présenté ma ko ba ñuy wax ma yéen <laughs> mënu ko mënu ko Roger bu ma bu ma yëngal waaye mënuma yéen ngeen toog dix-huit ans ñëw leen Coupe d'Afrique ñëw quatre-vingt-six da ngeen koy gagné parce que gañ ngeen Égypte. mën ko mais bien sûr on avait une équipe mënuma seen équipe am ngeen équipe mais équipe bi tàmmul. compétition waaw tàmmu ko. tàmmul jouer trois jours trois jours trois jours mënuma loolu xam mënuma benn match mën ngeen def résultat mais boo leen ko teglee la preuve gagné ngeen Mozambique euh, bi ngeen daje Côte d'Ivoire daf leen gagné. dafa leen gagné ah, ndax parce que seen ressource moo jeex boo leen ko tàmmoon nag xëy na di ngeen dem moo tax quand le président de la fédération euh, Augustin Senghor est venu pour moom. nañu participer ci compétition yi de manière régulière. loolu moo lay yóbbu au sommet moo lay yóbbu au sommet boo demee dem dem dem. dem demaat di nga xam li li la yàqal. waaw kañ pour nga am ndam. moo taxoon nag ci première euh, euh, am na benn xaw ma fan xamu ma bataala xaw ma fan gars yi ne nañ dàq Augustin ma ne bu ma ne Augustin dama ko woo téléphone. waaw dàq ne ko bul démissionné de. non li ngay wax xam nga kañ la. 2000 2017 euh, la. waaw ma ne ko bul démissionné. xam nga lan lañ ñu gagné. ay séddi penalty moo raté cinquième que muy dàqee xanaa Sadio Mané la ñuy wax. oui ne moom il a mis l'équipe dans de bonnes conditions. alors moom ak comité bi. Sénégal dañu gaaw si dàqaate. naan amul jéeg jiguñu. jiguñu waaye leen yéenay yàlla. na na seen papa xam lu leen jàngal. Euh, ja euh, wax leen affaire chance affaire travail la leen jàpp. waaw liggéey rek. liggéey rek moo tax gis nga résultat bi. moo taxit gis nga. moi j'aime beaucoup Auguste. li mu fi def gagné cinq titres. oui kenn def ko mos a gis. jamais mosul xam ni kon patience am. putain ah, il est patient ak rigueur am ak sérieux am ay garçon sérieux ba pare ba pare yaru waaw yaru trop sax xam nga yar dafa am solo eh, quand même buy wax ak yow sax du la dafa yaru <laughs> Alaaji Papa Dieng yow émission bi neex na waaw ah, mais nag <laughs> fi mu nekk euh, auditeurs yi bëgg a wootee euh, wax nañ leen numéro bi ngeen di wootee 77 128 67 67 allo allo waaye salaamaaleykum Sud FM maaleykum salaam qui voulait participer à l'émission. kookan la ak fooy wootee. Papa Dieng qui vous appelle de Saint-Louis. comment vous appelez. Papa Antounian. ok Pape allez-y. asalaamaaleykum. maaleykum salaam salaam. mon grand Dieng. lay ñaan ana Ndar. Dieng waa ñëpp a ngi lay nuyu Dieng. dëkk bu dëkk bu neex ba dëkku teraanga ba. wallaay Dieng ñëpp a ngi lay nuyu. di bëgg la nga bëgg nga gane suñu rek. man namm naa man naa. dinaa fi ñëwaat. ah non grand ñëwal Kalwaay. non damay ñëw ndar naa ndar dëkku teraanga la. xam man dama la bëgg lu tax nga ma bëgg la. ni nga bëgg sama mag bi Maxtaar ñaar. cim nga Maxtaar. tey. waaw. kooku baal ma baal baal ma dóoral la ci benn affaire. maa ngi ñëw grand. sunu match ak ak Mali tey sant yàlla damay sant yàlla. <laughs> bi ma bi nga boolee Yatma Lo. lay ndeysaan xam nga li nga def li ngeen def ni c'est révolution bien sûr. Mm-hmm. xam nga ma euh, RTS la nekk. Mm-hmm. Mm-hmm, mënoon nga ne kii sama concurrent la. déedéet kii sama xarit la. waaw xam naa sax dama lay wax rek bu doon keneen la dafa naan kii sama concurrent la. yéen yéen loolu cuune la <laughs> ndaanaan day bëgg ndaanaan. yaa yaa yow yaa ngi football yaa ngi football gore. bokk bokk jaraaf. ndeysaan. <laughs> la. ah ba ba pare Yatma football football. Euh, football via. lay dëgg lay ndeysaan ngeen ñëw boole ngeen bokk bokk. askay. li li li la kenn mës ko gis. man de mës ko gis <laughs> je n'ai jamais vu basuma ko gis. ndeysaan donc yal na yàlla bàyyi ak seen xel ak seen sago. amiin yaa rabbal aalamiin. analyse yi ngeen def yëpp. Mhm. aw yoon la. Mhm. yow Papa Dieng da nga ñàkk kañaan rek. Ah. waaw kii du du moromu gars yi da nga ñàkk kañaan rek grand yow yal na yàlla may gudd fan bu ànd ak. amiin yaa rabbal aalamiin amiin yal na yàlla sàmm te taxaw la. amiin yaa rabbal aalamiin. sama grand boobu nag li nga ko bëgg rek man moo tax ma bëgg la. ndeysaan Matar ñaa bi bi si xam ne soobee commencé ngay def ay analyse yu pertinent ci moom. sama xarit la yàlla xippee àjjana. ndeysaan amiin yaa rabbal moo tax amiin dama dama lay defal benn envoi ci moom boo paree rek. jërëjëf waay. dama lay fàttali rek Sénégal Mali. maa ngi leen di gërëm di leen ñaanal lii moom bu mu dakk de. jërëjëf am incha allah am. jërëjëf Pape Dieng RTS parce que man émission bi nga def RTS da nga koy suivre. oui jërëjëf <laughs> d'accord. merci échange bi na yàgg maa ngi ñëw si Sénégal Mali la. jërëjëf Aliou def ni après avoir enrayé une dangereuse offensive de Domingo Amadou Moustapha Dieng donne la bal à Yérim Diagne qui alerte Louis Camara sur Louis Gomis et Matar au terme d'une couverture de balle hermétique dérègle le rideau défensif malien et prend Yacobo Samabali à contre mu ni nul n'a vu le pied de frappe de Matar Niass c'est le triomphe de la jeunesse et l'intelligence du football mu ni ce premier but sénégalais provoqua une vive réaction des attaquants maliens Domingo sort le grand jeu poète du football dont il semble savourer la beauté, dessine sur le, sur le terrain une véritable œuvre d'art. Le Jeté Matar est un poème, c'est un hymne à la beauté. C'est un poème qui ravit et émeut tout à la fois un oh. véritable chant d'amour. J'avoue avoir été séduit par le jeu de ce garçon qui, quand il exprimera toutes ses possibilités, ne sera pas loin de la classe de Domingo. Mais il faut que ceux qui l'entourent lui fassent comprendre qu'en travaillant davantage et dans il sera le meilleur footballeur de l'Afrique. Ah, il est devenu le meilleur joueur. kooku mooy Matar Niang. Matar Niang. quelle élégance. ah quelle intelligence en mouvement. oh là maa ngi fàttaliku match bi mu joué ak Jeanne d'Arc fii final championnat. tey troisième bi ba mu dugal. ak ret ba mu def. yaa ngi fàttaliku final bi. waaw ñëw de def tubéy ji booy waane ko. je te te bu ñëw taskar cuisse euh, cuisse yi génn taskaraw gi diw diw cuisse diw ko ba mu weex niin bot tarba ëpp jëmm ji wallaay xel ma <laughs> yaat na yaat ma on est en pleine émission ah! allah yaa ngi papa yaa ngi may daj waaye allah kon auditeurs yi ba tey yéen a ngi déglu <laughs> Sud FM seen rajo sunu invité tey yaat moo loolu xam nga yaat ma nag boo ko rek du ci affaire arts martiaux. ah waaw on parle de tout. waaw ah, maa la de. Ah, surtout football. waaw football on aurait de handball. de basket. mais oui. ah ah fekkee naa ñeddaa. fekkee xam la ndeysaan ak équipe trésor bu mag ba trésor bu mag ba ñoom daggit. ay famille ndiir. Ah. ak lay ndeysaan <laughs> waa Jalle Diop. Jalle Diop ak ñoom Doudou Leydi Camara. ay waay ndeysaan ci ci ci ci basket bi. ak ñoom monsieur Naaru Ndiaye. pop pop Naaru ndeysaan. ak Claude. man demoon naa seeti ko. ndeysaan ak Claude Constantino. ay waay ndeysaan. ak Claude Sadio. te te te te te te te basket bi neexoon. Abdourahmane yaa Adidas léeg-léeg mu ñëw sama ak léeg-léeg mu ñëw sama ak ñoom Jacques Fowler ak ñoom Lucas Jacques Fowler Lamine Thiam Lamine Thiam <laughs> Mbaye oh, le basketball sénégalais quel art am naa xarit boo xam ne nee na du seetaan américain yi mën na ko lu tax mu ne ma puisque trésor équipe bu Amérique la ah! bi laay wax dëgg <laughs> nee na ma li li américain woon yëpp moom lañ ko dañ ko doon def quelle équipe daggit daggit Cheikh Fall Kapi cheetet mais grand gis nga match yooyu. Moussa Sène. da nga leen Lucas. wow. Dudley di Camara ak Tara. no non cinq majeurs yooyu bu ñu nekkee ci biir terrain bi. non non ñooñu ñooñu c'est de l'art un plaisir de les jouer. oui. kon man daal euh, mbokk auditeurs yi ñu ngi euh, pré tëj émission bi di encourager nag équipe bu Mbour. waaw dem deux finales du affaire bu ndaw. waaw du affaire bu ndaw. il leur a manqué un petit peu. pour ñu gagner te équipe bi ñu dajeel. ku mu gagné final du gàcce. dëgg la gagné ku ne final. non final c'est une fête. c'est une fête. donc euh, euh, heureusement sax ñaari président yi comprendre nañ ko bu communiquer nañ régulièrement. et puis ils ont communié. non xam nga tamit tamit xam nga. waa Jaraaf dafa leen aide d'honneur. loolu Jaraaf c'est une grande équipe. Ah, ah, c'est des choses à de grand dirigeant. je retiens ça. non je te dis. fin bi moom la. non dañu neexal fête bi. dañ ko neexal loolu mooy coupe bi bu ñu ko mënoon xar en deux dañ koy séddoo. bilaay ma la mais léegi nag la coupe n'est pas un gâteau qu'on partage. oui euh, euh, euh, à travers les postulants benn équipe rek moo ko mën a jël. jeex na kenn mënu ko séddoo. ndee bu doon gâteau dañ koy dagg. ci digg bi ku nekk jël. ku nekk jël mais nag c'est une coupe. en tout cas je je salue aussi le fait d'avoir joué à. à ah, Abdoulaye Wade. il le faut. il faut que il faut yooyu foofu la xëj. voilà coupe du Sénégal moom il n'est plus question de. jouer feneen waaw. gis nga li amoon stade euh, Demba Diop ci diggante Wakaam ak stade de Mbour. loolu moom erreur passé wul loolu. waaw loolu moom waruñu ko fay def. final moom fête la boo xam ne da nga koy def fu yaatoo yaatu. même le basket ne doit plus jouer à Marius Ndiaye. non dëgg la dañu war dem Dakar Arena fële. dëgg am nañ am nañ fa kii. waaw y a ah, tout sur place y a tout. ah non y am parking am tout. am espace c'est nag c'est que nag euh, il faut que mu benn mesure d'accompagnement de l'État Mhm. gis nga grand il faut mu am euh, terminus bus. non ñu ngi koy def. terminus boo xam ne bus yi dañuy daw régulièrement di fa dem ba foofu loolu des ci programme bi ñu ngi ci. jeex na ñu ngi ci ñu ngi ci waxtaan ak waa Dakar dem dikk parce que équipe nationale boo amee match yooyu dafay am mais xam nga tamit on prépare un match. oui avec le Rwanda on prépare aussi un match. contre l'Algérie Rwanda Rwanda yi ñoom nee nañu. daal waaw nee nañu match retour bi daal. <laughs> man de ci doon man de dinañ ñëw nas naka xam nga dañu war a dajeeg Algérie te dañ ko programmé. te xam c' est un match de Arabie Saoudite. Mhm. Hmm. non foofu mooy Eldorado football bi léegi. mais c' est grave. non tout le monde est là-bas. ñoom Guardiola ay ñoom. Euh, club di jooy. waaw waaw. Ah, parce que tamit. fi ñu lay fay dix nga dem fa la ñu. fay la million. cent mille wala deux cent mille wax dëgg. par jour. waaw football bi fa lay mujj. ah en tout cas. day naan naan naan doole buuxante lay jëriñ. te Arabie Saoudite xam nañ bari doole ci côté boobu. wala ñu ngi koy wane de. bëri xaalis. parce que ah, ñuy baril de ñuy jaay par jour rek ñu ne xam naa bu ñuy commencé jaay moitié bi rek dina baax <laughs> parce que quand plus deux millions de baril par jour <laughs> pétrole nga koy jaay eh. dëkk boo xam ne ñëpp riche at mu jot ñu seddoo revenu yi ku ci nekk ñu fekk la gis kër nga nelaw ñun la yaat ma jógal li yaa ko moom allahu akbar moo tax du ñu liggéey bëccëg ñoom guddi rek. ah waaw guddi rek bëccëg dañuy bu ñu jullee ba pare dañuy tëdd nelaw. nelaw rek ndeysaan. lekk naan boo génnee ci mbedd mi doo gis nit. wallaay ndeysaan guddi ñuy génn. bu weer dee ñu séddoo xaalis ba ñuy. mais mais ñoo dem Arabie Saoudite. dëkk fa waaw dafa tàng de. Biebo. tàng na de waaw Biebo. <laughs> wala bëri na ay climatiseur. am na ay clim rek la. da ngay dox rek mën nga mën nga commandé climatiseur boo xam ne sax da nga koy teg sa bopp. laay dëgg la. waaw ah, restau ah, ah, àddina. waaw nag xam nga tamit boo seetee ka fa tëdd tax mat. waaw loolu la de ah tëdd la. waaw ka fa tëdd ci réew ma. cee tëdd. gars bu ñu fàtte loolu nag. day dëgg la. mais grand maa ngi lay gërëm di sant parce que émission bi jeex na. waaw jeex na tàkk. Euh, di kontaan. yow di la ñaanal rek nga yàgg fi loolu nag. ñu ñaanalante yàgg na parce que yow su ma fi yàggee du neex. waaw yow moom yow moom c'est avec toujours plaisir man su ma lay déglu damay kontaan. Mhm. émission bi parfois heure bi daanam fekk sama ma koy déglu. moo tax ngay ree rek. <laughs> émission bi da nga ko ree waaw euh, euh, mhm. euh, mhm. seen seen seen duo yéen ñaar. c'est du feu. am naa sama na ma dafa ma war a fay droit ndax nee na saa yuy wax dafay defe ni may wax. nga ne man ko bi mu ñëwee fi man la fi fekk. ndeysaan maa ko defal formation ni ma Pafal defalee formation. mais mais non mais c'est hmm. ma benn jigéen wax ni ma na lay fay droit d'auteur. nag ndeysaan. ndeysaan waaw. Ah. nga nekk grand lay ndeysaan mu nekk sa ginnaaw. lay ndeysaan loo ko mu def. lay dëgg ko sant mu def. lay dëgg la boo mu bàyyi. lay dëgg la. te El Hadj ku baax la. non tamit ko trondoo ba la jël. non man daf may woo régulièrement la mel. ak a baax grand gërëm naa la sant naa la. jërëjëf waaw gërëm naa la kon mbokk auditeurs yi su mu nekk émission bi jeex na. su mm-hmm. suñu invité tey comme ne yat ma loolu gis ngeen waxtaan bu neex bi nga xam ne def nañ ko ak moom ak tamit auditeurs yi nga xam ni woote nañu bokk ci émission bi joxe seen mm-hmm. participation ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne dina am rediffusion incha allah ëllëg après le journal de la di fàttali auditeurs yi rek rek ni final coupe du Sénégal bi jaraaf la woon ak Stade de Mbour jaraaf gagné ko 2 ci coupe africaine yi tamit Casa Sport ak Génération Foot malheureusement dañ leen gagné. Mhm. sans démériter parce que ñoom ñaar ñëpp. à un certain mhm. moment du match. xalaatoon nañ ñooy gagné mais compétition noonu la demee. il faut se préparer pour la saison prochaine. comme l'a dit le président Madi Touré. et comme l'a dit aussi le président du Casa Sport. Mhm. ñuy ay dirigeants yu mag a yoo xam ne ils ont compris. que que la défaite ça fait partie du sport. découragé wu pour déwén. ñu am équipe boo xam ni dina mën a passé maanaam premier tour bi loolu nag li koy def tamit mooy maintenir les joueurs à leur équipe dans leur équipe pour ñu mën a génn ci groupe yi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm Pape Ibrahima Dieng ak Yatma Lo ñu doon def émission bi ci Sud FM seen rajo.